الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي الرحمن الرحيم يا أيها العالمين وشاكرا ومن كان ينحو للمدينة زائرا سواء فإني جئت أحمد زائرا هو الحب إبراهيم قد جاء ظائرا ليعمل خير العالمين وشاكرا له المسجد الاعلى فطه مشيده واقطع روض الجنان مجاورا هو الهب ابراهيم قد جاء ظائرا ليعمل خير العالمين أشاك يذكرني دهرا مضى ونبينا يروء ويغدو يبلغ الوحي زائرا هو لابو إبراهيم قد جاء ظاهرا لأحمد خيرا العالمين وساكنا فأثاروا دلا عليه تبصرا بمكة أمر الهاشم دار زائرا هو الحب إبراهيم قد جاء يا ملك العالمين وشاكرا وتي تيبة هذا كبدر وقندقون وذا أحد تنسي كبدوا وحادرا هو الحب إبراهيم قد جاء إلى يعمل خير العالمين وشاخر باين فضرام يأتي زائرا ومتوسلا ومستشفعا أرجوك في القبر حاضرا وكل شفيعا يوم زاقت وأذعنت وجوه وأبصار ترى الكل حائرا هو الهب إبراهيم قد جاء زائرا يا مدى خير الآن العالمين وشاكرا وقد شاب ولدان وقاف مؤمم فقد بلغت كل القلوب هناجرا هو الحب إبراهيم قد جاء ظاهرا ليعمل خير العالمين وشاكرا وكل بريء قال نفسي وقد جسى الجميع فلا تلفي هناك أكابر ولا ملكا إلا الإله وشافعا سوى المصطفى المختار وعادرا هو الحب إبراهيم قد جاء ظاهرا يا مرا خير العالمين وشافعا ولا ملكا إلا الإله وشافعا سوى المصطفى المختار بدوا وآخرا فمعتمدي حقا عطاء محمد فهل يتحداني زمان مكابرا هو الهب إبراهيم وقد جاء ذائرا لأعمل خير العالمين العالمين وشاهد لنفسي وآبائي ونسلي ورفقتي شفاعة والحق وأبدى سرائرا هو الحب إبراهيم قد جاء ليعمل خير العالمين وشاكرا رضي الله عن شيخي وأصلي ومرشدي وقرع يهدينا إلى الدين ناصرا هو الهب إبراهيم قد جاء ظاهرا لأحمد خير العالمين وشاكرا بغزل وتعليم وحج وهجرة وعاش شكورا وعاش شابرا عليه صلاة الله ثم سلام أتيتك برا ثم بحرا وطائرا هو الحب إبراهيم قد يا الأيام على خير العالمين وشهد بنفسي وأولادي وصحبي وأسرتي فأتهب لنا الرضوان بدنا وظائرا هو الحب إبراهيم وقد جاء ظائرا ليعمل خير العالمين وشاكر عليك صلاة الله ثم سلام وآل وأزواجنا ومن كان عاشرا هو الحب إبراهيم قد جاء ثائرا يا مرا خير العالمين وساكرا إن قد مل الأنبياء فاق أرسال الأنبياء إن قد مل الأنبياء فاق أرسال الأنبياء بحر سري وسنائي شمس رشدنا واهتدائي إن قد ما لنبيائي فبأرزا لنبيائي جنة القاع بامتداحي لملاذي وسرائي إن قد ما وادكاري وفنائي إن قلبي طال ودي وزفيري وبكائي إن قد مات أنبيائي فاق أرسال أنبيائي وحنيني وافتراقي في صباحي ومسائي إن قد مال أنبيائي فاق أرسال أنبيائي زارني طيف خيالنا من حبيبي عينها إلى بدائي هل في القلب مكانا مستحيلا لسواي طل من دون مقامي وحياتي من دمائي إن قد ما أنبيائي فقد سال أنبيائي من دون مقامي وحياتي من دمائي إن قد ما أنبيائي فقد سالت بيا يقدي هم سوائي ووهمي ذو سوائي إن قد ملا أنبيائي فقد الأنبياء كان فقما ومهيبا ومليا ذا سواء لا تراشب المقفى فهو سين قبل رائي Masya allah lalu lii may rek bagi wajah waxtaan baa ngi senani a tàmbali ak koo xamee ni sañ naa ni ab professeur la ci xam gis bu ca kanamee tuuti ci ni ñu leen di tànnee mag ñi nag mag ñi nag du ñu jóg ci di ko waxtaanee ci di leen waxtaanee plutôt ci télévision Futur Média moo tax euh, weer wi yëpp euh, de temps en temps ñu recevoir ay borom xam-xam ñu waxtaanee mag ñi tey nag ñu tànn ci ko xam ni dégg naa fu ñu koy waxtaanee bërëb boobu day am leer donc segam ñun ñu ngi koy waxtaanee fii ci euh, plateau bi yéen ci seeni biir kër leer na ma ni leer gi dina baawaan ndax bàyyi ñu bég Euh, ci euh, gan gi euh, Cheikh nii mu ñu nangule tey doon waxtaankat bi ci Baye Oustaz Pape ma seetlu ni saa yi ñuy waxtaanee Baye Niass li ma wax démb ci ku tedd ki ñu doon waxtaanee du du ñu doy jamais ci benn émission et pourtant depuis sept ans ñu ngi leen di waxtaanee. ay géej lañu alaaj Pape géej lañu rawatina kii nu jël tey démb xam nga bi ñu demee ci maam Cheikh Omar. kenn doyalul waye ki nu jël tay mën nga ko waxtaane ay weer mhm. du jeex ay at du jeex mom cheikh al islam radiyallahu anhu mhm. nga xamni baye waxuma wilaya gi mu juddoo mom cheikh al islam radiyallahu anhu mhm. Bayam al hadj abdullah li limu def ci diina jeek limu leral leeral xam-xam yi mu jàngale mais baye da ci ci nitu yalla yi da ci am euh, mbiri bopam lo xamni mom moko fagul bopam mom cheikh al islam ci yitte bopam Euh, bi jang jote bay jang ba nopi hmm. way cheikh islam day ko xamni euh day ko xamni ci bir wëllu yi hmm. day ko xamni nimu nimu dafa dafa xam adina bay hmm. radiyallahu anhu way itam euh, xam adina bay yittim ak choono giko l'islam jaral mënul naa toog fii waaye da ngay xool Baye alaaj Pape euh, wër gi mu doon def. daj naa dina. wër wër Baye. wax naa la sànq bi ñuy door ma ne mhm. bàyyi day dem ci réew moo xam ni. Mhm. Euh, Cheikh islaam dëkk bi mu juddoo ay wolof a fi ne ay tukkulóor ak i séeréer ak yeneen langue mhm. mais mën nga ni wolof la ñuy gën a làkk français. mbaa mbaa mbaa ñi muy làkk arab mais bàyyi dina dem ci dëkk yoo xam ni dégguñu wolof dégguñu français dégguñu arab bàyyi wax ak ñoom convaincre leen ba dugaleen ci lislaam mhm. alaaj pap ay xeet yoo xam ni tey boo demee Medina Baye bu gàmm jotee di nga fa gis ay xeet yoo xam ni mhm. ku ne réew mu ne ngay bàyyi ko ka leen convaincre mooy seexal islaam mhm. euh, bàyyi nag alaaj pap loolu cër boobu yàlla defal ko ko ci muy boroom xam-xam wër tasaare lislaam seexal islaam dafa tasaare l'islam tey euh, boo demee Nigéria alaj pap la fa ne nga dem Burkina Faso ba Gabon. ba ba ba ba ba Ghana. la mu def Ghana moom bàyyi rajo. Amérique nag toj na fa. la mu def Amérique. la mu def américain yi da ngay gis da nga ci gis ay taalibe bàyyi. mi ngi noonu mm-hmm. waaye waaye Cheikh al Islam radiyallahu anhu moom moom ci mission ci yittey boppam mm-hmm. ba Chine bàyyi bàyyi bàyyi dem na fa radiyallahu taala anhu mm-hmm. ci yittey boppam moom bàyyi ci yittey boppam waaye ci cofeel gi mu am ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la Sayyidina Muhammad waxoon ni na ngeen ma jotalal donte benn aaya la balligu anni walaw aayatan mais bàyyi aaya boobu dugg na ci ay ruq ya nga xam ni pour dem fa problème la bàyyi dugg na seeni biir ñu xamul yàlla xamuñu yonent bi xamuñu Seexu Tijaan yi xamuñu lislaam bàyyi indi leen ba tey seeni doom ba tey seeni sët di ay imaam di ay boromi xam-xam di ay kàngam ci lislaam bi loolu Seex al islaam la radiyallahu taala anhu alaj ba macha allah jërëjëf aw oustaz ma profité ci rek euh, joxewaat ay suukaru koor ndax mënul ñàkk waxtaan wi day neex euh, ñu ci euh, bég di ci barkeelu di profité di sàkkuwaale xam-xam mais en même temps ndimbal Euh, du ñu bëgg ngeen yàgg ci ligne bi lu lu bëri moo tax euh, bu ñu amaatee euh, ay woote rek ñu dimbali leen dugal leen ci numéro de téléphone yi nga xam ne nii ñu ngi koy waaja a affiché waat léegi ci suufu écran bi bu ko defee enveloppe yi tey ne woon naa mën naa yegg ba 500000 ñii ma may leen 150 ñii ma may leen 200 ñii ma may leen trois 300 ba 100 ba 500000. le euh, euh, plafond bi numéro bi ngeen di numéro bu 88 628 20 40 donc le temps ngeen di euh, Fati defena bu sous joté ñu ñu gis la waye bu ngeen démé Medina Baye ba and ak rédaction bu télévision Futur Média donté souvent yeen amna ñu yu déontologie euh, di tere en tant que journaliste mais yeen yéen ay njëkk a daanu ci bërëb yu sell yooyu Pape Cheikh euh, li nga wax lu wër la sa ñu démé Medina Baye euh, suñu xel fay sori ndax Baye ñass ak taxawaayam 75 ans le dundu mais lepp njëriñ la Pape Cheikh mhm. sank oustaz Pape Anne mi ngi koy wax liko dalé tay ba ñassène ba pays du Golfe jaaree Nigéria Gano Togo foo dem yaa ngi fa fekk euh, waa faydu bi mhm. ñu am ci taxawaay bu am solo loolu nag liggéeyu Cheikh al Islam la mhm. Mame Baye Niass mu def ko également ci njabootam euh, tey Pape Cheikh su gàmmu jotee ba ngay dem ci bërëb yu sell yooyu ay Kossy ak yeneen gox yoo xam ne rédaction bi dafay dugg di def ay gëstu da ngay gis taxawaay bi nga xam ne Baye Niass amoon na ko mais surtout man Pape Cheikh li mu ci gën a marqué mooy njabootam gi mu leen def mais doomam yu jigéen yi mhm. Seyda Mariama Niass misaal la ci ñoom ñëpp mokkal alxuraan di ko tari te duñu ko gëstu ba noppi di ko jàngale di ko jàngale parce que dafa gisoon ne jigéen ak góor amul différence jàngal leen mm-hmm. diine mm-hmm. jàngal leen alxuraan jàngal leen àddina te mm-hmm. loolu ci la bàyyi Niass taxawoon et je pense que bu ñu waxee rek seydaa Seyda Mariama Niass nga xam ne euh, fierté la ci ci ci ci Sénégal da ngay waxaale doomu Baye Niass yu jigéen yépp ay sëtam yi mu fi bàyyi également Pape Cheikh fu nekk la ñuy dem ci àddina bi gis nga boo demee ci ci ci ci gàmmu gi euh, euh, Medina Baye ba awsa yi ñëw yeneen nationalité yi ñëw américain yi ñëw mhm. Pape da nga yéemu da ngay foog ne nekkuloo Sénégal da ngay foog ne nekkuloo jëg ndax doo fa dégg sax wolof wallaay lazim te ku la dàqa si kër nga ni kii la ñoom ñëpp xam njàngalem Baye donc yaakaar naa ni waxtaane Baye Niass ci jataay mhm. fekkee ko xéewal la waaw ndax suñu fierté la Baye Niass macha ñu ngi ndokkeel soppe yëpp euh, Clayton Hamilton moom suma xarit la dafa fésal fi mu bokk xam naa ni tey day nuyu Blanche euh, MC Niass ñu ngi koy ndokkeel Euh, di euh, bégal itam sunu yeneen i soppee yoo xamante ni fésal nañu fi ñu bokk ak cofeel gi ñu am ci baay na buñ ko benn yoon moo tax ku lim juum waaye ak fu ngeen mënti nekk rek te pays bi rek soxal leen mhm. ñu ngi leen di bégal euh, Baye ñas photographe la fii ci groupe Futur Média moom itam xam naa ni dina bég ci jotaay bi tey Awa Gaye doomam Cheikh Ibrahim Baye Niass la ko tuddee li muy tuut tànk yëpp xam naa ni ma ngay nuy blanche ak kañ ko bàyyeel parce que yaayam a ngi ci plateau bi ñu euh, euh, tàmbali waxtaan bi kon nuyu Serigne Cheikh Ahmed euh, Boucar Niang ñu ngi lay gërëm bu baax mm-hmm. ci disponibilité bi mm-hmm. ak ci générosité ndax générosité weesuwul nangu ñëw toog waxtaan ak sénégalais yëpp partager ak ñoom xam-xam bi ne ci yow macha allah ñu bàyyi la nga nuyoog ñoom الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الغر آه، المحج قائد الغر المحجلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر يا سيدنا إبراهيم الغوث Cheikh Pape maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu lay fay ñaan di nuyu mbokk yi nga toog ak yëpp surtout suñu sœurs yu tedd yi dend ak yow. di nuyu suñu ustaas yu baax yu kawe yi ba tabaarakallaahu ñi nga xam ne waxtu bu nekk ñu ngi leen di bëggee muy ustaas Pape Hann ustaas Hassan ustaas Modou Fall nga xam ne waxtu waxtu bu nekk ñu ngi leen di teewlu à travers le groupe Futur Média gis seen pédagogie nag ndax Imam Ghazali dafa wax ne ku mën a oo ay nit ci diine mooy ku xam mentalité nit ñi te xam ngeen réew mi xam ngeen ni ngeen di ooyee nit ñi ci diine ni ngeen leen di gindee ci xam te loolu rek lañ soxla ci jàngalekat yàlla yàlla yokku leen di gërëm bu baax waa groupe bi di ko tàmbalee ci président Youssou Ndour gërëb équipe bi yëpp di gërëm mbokk yi ma ànd ak suma doomu nijaay Cheikh mohammed Niass doomi Cheikh mohammed mohammed naa nga xamne ne moo ñu ubbil ci alquran ju tedd jooju waaye azakir almuqaddam albaraka Cheikh mustafa sar nga xamne mo fi jàng dara ci di wayu Mawlana Cheikh Ibrahim tagg ya yàlla sallallahu alayhi wasallam nga xamne xamna dara ci gëna xoos buñu duggé ci bir di jëtal suñu nuyo ci khalifa Mawlana Cheikh Ibrahim khadimul ummati mi Mawlana Cheikh mohammed Mahi Cheikh Ibrahim Niass nga xamne moy khalifa Baye tay tok ci chaise bi ci borom xam-xam di aalimul medina bàyyi nag dafa waxoon ne ba muy ñaanal medina aalimuhum yudarrisul uluma fi kulli saatin yuril fuhuma yàlla yàlla nga def medina borom xam-xami medina ba waxtu wu waxtu wu nekk muy joxe xam-xam di joxe ay dégg yu bees ku dégg sëñ Mahi mu wax da nga xam ne c'est un homme de son temps nit yi jamono ji la gannaaw bu mu wattee alquran mokkal ko dem Égypte capitalu xam-xamu diine jàng fa mais dugg ci brassage xam idéologie jamono ji dëkk Ghana ci jamono Kwame Nkrumah xam li xew ci àdduna donnu chaise firi alquran bi nga xam ne maamooma ci toogoon bàyyam ñëw toog ci ba fi ñu toll nii mi ngi firi alquran ci biir weeru koor gi kooku xam na ni jamono di doxee te Cheikh Tidiane daf ne dox leen seen doxini jamono ki gën a ooñu ki gën a mën a ooñoon jamono ci yàlla nag mooy ki xam jamono ni muy doxee te sëñ maax yi modèle la ci loolu ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko ñun di nuyu rakkam ki nga xam ne moo ko teewal fii ci Ndakaaru muy Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Baba Lamine Niass di nuyu suñu waajur ki nga xam ne mooy la doyenne de la famille de Cheikh Ibrahim muy Cheikh Roqeya bint Mawlana Alhaji Ibrahima Niass ñaan yàlla guddal fanam di nuyu imaamu pay bi imaamu xadara bi imaamul aimati sanad yi wa mustanad yi imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé di ñaan yàlla guddal fanam di nuyu président Ansaruddin Cheikh Mouhamad Mounhamin naa mi waajuru Cheikh Mouhamad mi di suma patron ndax ñun la dénk commission bi toppatoo wàllu sommet et conférence ci biir Ansaruddin di nuyu tamit mbokk yëpp rawatina Cheikh abdullah Mountakha seen xarit mi nga xam ne trait d'union la Hamzatul Wasli ci diggante yéen ak kër wi ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk ko te fay ko te dëgëral ko Haj pap loolu lañ doon nuyoo incha allah di xaar rek ñu xuusandi ci biir waxtaan wi macha allah et puis oustaz pour pour dëggal li ñu doon waxtaanee sànq bi ñu gëstoo ci la ñu dégg ni way juram bu jigéen moo njëkk bind livre ci doomi Baye Niass ci doomi Baye mom mom moom Cheikh Boucar moom moom Cheikh Boucar. ci eh, jigéen. ci jigéen taxawaayam. Mhm. waaye ci njangum jigen mais laaj Pap bàyyi domam yep mokal alquran mhm. domam yep mokal nañu alquran mhm. domam yep ay boromi xam-xam lañu. lool nak lool nak yitte yi euh, Cheikh al Islam la radiyallahu taala anhu euh, xam nga deret fay rogalat alaj Pap waaw comme nga xam nga xam euh, ñom bàyyi radiyallahu anhu maa ngi mu ngi euh, kii doon jàng alxuraan léegi nga xam ni Cheikh al Islam moo jur moo jur moo jur baayam. Mm-hmm. Euh, nga xam ni baayam euh, baay Seydina Muhammad la ko tuddee. Mm-hmm. ndax yonent bi amoon turam man xamanaa turam la mën nga ko wax mun xamanaa ah. mm-hmm. ci tur ci turu Seydina Muhammad la bokk. nga xool cofeelu Cheikh al Islam radiyallahu anhu waaye baay alaaj Pape. léegi euh, Seyda Mariama mi nu indi radiyallahu anha nga xool fi mu jaar daara ji mu yor jël léppam jox lislaam jox alquraanu karim li ne ci Seyda Mariama Niass mhm. moo ne ci Seyda Roqi Niass moo maanaam cheikh al njabootam ñëpp ay borom yi xam-xam la mhm. mokkal alquraanul karim mhm. euh, ni ko jigéen ji mokkale alaaj pap kon rawatina góor ñi kon yal na yàlla yokku leeram kàngamu lislaam jàmbaari lislaam moom la waxtaane tey waaw macha allah kon ñu tàmbali mënul ñàkk ñu tàmbali waaye di nuyu njabootu Cheikh al islam gépp ñaanal xalifa bi mm. sëñ Mouhamadul Mahi mm. mu yàgg fi lool te wér mm. imam Cheikh Ahmed Tidiane euh, Cissé euh, mu yàgg fi moom itam di ko nuyu euh, sëriñ Mahi Cissé moom itam nu ngi koy nuyu bu baax a baax Abdoulaye Mountakha moom tamit nga xam ni coono ba nga xam ni jànkonte na ko diggante groupe Futurs ak kër Cheikh al islam incha allahu taala ci kanam daañu génne ay images yoo xam ni lépp ci moom la moom Cheikh Abdoulaye Mountakha nu koy nuyu Euh, waaye di nuyu si Abdourahmane Ndaw alkarim nga xam ni moom itam lépp yi waa groupe Futurs Médias la si Abdourahmane di sunu lépp nu ngi koy ndokkeel bu baax a baax euh, Cheikh Boucar di am mbégte jàkkaarloo ak yow waaw sa xam-xam bu sell di am mbégte mm-hmm. di wuyu si gi nga wuyu si télévision Futurs Médias mm-hmm. euh, diggante groupe Futurs Médias ak kër seexal islaam mm-hmm. loolu nag yàlla moo ñu ko xéewalee rek ñun groupe bi nga xam ne ëttu këri diine ji fenn fu ñu dem rek da nga yaakaar na ñun foofu la ñu bokk loolu nag dafay rogalaat ci xolu ki nga xam ni moo sanc euh, télévision bi di président Youssou Ndour ak sunu directeur yi waaye mbëggeel sunu mbëggeel ci bàyyi loolu kenn xamul lu mu doon. Hmm. waaw moo tax bu ñuy def spécial bàyyi dangay ngay yëg ci xolu ñi koy euh, présentateur bi El Hadj ak sunu jigéen yi. Hmm. ak euh, sunu asatise yi boroom xam-xam yi. Hmm. dañuy yàkkamti kenn ñëw ñu poser la question ci Baye ndax bàyyi ñëpp ko sop bàyyi ñëpp ko bëgg ci taxawaayam Baye ñëpp waaw Cheikh Islam yàlla ko jox taar boo xam ni mm. moom boo ne ko jàkk rek da nga koy bëgg avant avant nga koy xam sax mm. yal na yàlla taas ñu ci barkeem Oustaz Modou xam naa ak Oustaz Assane ma bàyyi leen ngeen jàkkaarloog nuyoo euh, ak euh, Hadj Boucar ñang Omar bu ko defee nag ñu door a poser question yi nag ñu tàmbali waxtaan wi Oustaz jërëjëf Oustaz pap an ci kàddu yu rafet yi ñu ngi bég lool di waxtaane nitu yàlla bu mel ni Maulana Cheikh Ibrahima Niass nga xam ni ni ko Pape Hann waxee rek réew mi ñëpp a ko sopp ndax xam-xamam bu yaatu waaye itam bëgg yàllaam nga xam ni yàlla defaloon na ko xam-xam boo xam ni tey boo nee ñaseen rek li ñuy njëkk a séentu ci yow mooy xam boo nee ñaseen li ñuy njëkk a ci yow mooy xam turu yàlla boo nee ñaseen li ñuy njëkk a séentu ci yow mooy mën alquran moo tax Sayda Mariama mi ñu doon wax sànq laa xar mu mel nii mu mel ndax bu ñu la nee kuy sa waajur ñu ne Maulana Cheikh Ibrahima Niass nii rek nga mën a mel alaaji Pape nag ki nuy waxtaane tey kenn la ci lislaam kenn la ci diine ji di ko xam ni mag nettali na ma ni ma boo masaana bëgg a xam baay kañ lay bég ma ne ko ah, mu ne ma dañoo dëgmal weeru gàmmu mu ne bu ñu dëgmalee weeru gàmm dangay ngay yëg ni Baay Ñas mi ngi ci beneen jamono ndax bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad loolu nag tey occasion boobu ñu may ko télévision fitir Médias Cheikh Bokar mi nga xam ni nit ku baax la xam-xamam kenn na table wu ko fas yéene waxtaane ku tedd kooku di Maulana Cheikh Ibrahima ñas daañu ko séq ak moom incha allahu taala laaj ko ay question ci kanam tuuti bu ñu tàmbalee waxtaan wi mu wax ñu dëgg-dëgg Baye Niass waaw kan mooy maamam mhm. mu wax ñu dëgg-dëgg daal alaaji Baye kan mooy maamam mooy kan waaw <laughs> jërëjëf El Hadj Baye Cheikh amati mbégte rek waxtaanee tey mag moo xamante ne nii kenn la si góoru yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax yàlla moo wax ne inna al fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim dafa am loo xam ne ci loxol yàlla la nekk muy ngëneel yàlla nag moom mooy xool ngëneelam fu ko neex mu sotti ko fa jël ngëneel lu bëree bëree bëri jox Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu man ma koy woowee l'international la solution ndax taxawaayam si lislaam taxawaayam si daawa bi waaye itam ni mu ubbee xol yi dugal si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne saa su nekk bu ñu demee Medina Baye di ko waxtaane bu ñu nee gàmmu gi wala gàmmuwaat bi jeex na sax da ngay gis ne am na yu bëree bëri yoo xam ne waroon nañ ko wax si moom mais waxtu wa xëy na moo ko dul mate moo tax fa tabarakallahu waaye loolu day wane rek dimension ki nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy waxtaane di si ndokkeel rek Cheikh Mamour Aïssa ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak njabootam gi yëpp fa tabarakallahu macha allah Cheikh Ahmad Cheikh Boucar ñu ngi lay ndokkeel di la dalal am mbégte jàkkaarloo ak yow ndax fa tabarakallahu comme ni ko laaj Baye Cheikh waxee sa Cheikha ki nga xamante ni moom moo di sa wayjur bu jigéen Cheikha Rokhaya moo njëkk bind livre non seulement fii si Sénégal wala si doom bàyyi en tant que soxna waaye si Afrique kon loolu dafa nekk loo xamante ni wax fa dëgg yàlla lu jara bàyyi xel la di wane itam Mawlaana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu ni mu tàggatee njabootam te yar leen waaye itam fexe ba ku si nekk si ñoom nga am xam-xam ba nga xamante ni kenn dootu ko nattable si kaw suuf nga xam ne bibliothèque la mom ki nga xamanteni fa tabarakallah ma sha allah modi Cheikh ar Roxe yal na yàlla guddal fa nam bayiko fi mu yag fi lol ziar khalifa ba Cheikh Mouhamadou makhi Niass ak njabot Mawlana Cheikh Ibrahim yëpp radiallahu taala anhu te dal oustaz pap ku déglu xerawlu di nga deg lenen ndax ki tok day borom xam-xam di ko xamanteni xam-xamam dafa leer ànd ak pedagogy comme ni ko Alaaji Baye Cheikh waxe te xamna ni ne yi fi mu nek ni déglu rek lañu bëgg ñu waxtaane Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu Ustaz Pape. am nañu mbégte oustaz Assane <coughs> jërëjëf oustaz Modou yal na yàlla gën leen a barkeel yéen itam ya imam mhm. yaakaar naa tey Medina Baye ñëpp a ngi toog di xerawlu di réew meeg bitim réew mhm. ñëpp ngi xaar soppay Cheikh al Islam yi ñoom itam ñoom ñëpp tey ñu ngi xaar bi ñuy door sànq dama ni nit pour nga bëgg ko faaw nga xam ko ba noppi mhm. bàyyi nag ku mu nekkul sa sëriñ sax sopp nga ko waaye itam bëgg nañoo gën a sopp bàyyi radiyallahu mm-hmm. waaye gën a xam ay jaar-jaaram waaye xam cosaanam itam waaw xam cosaanam yenn saay ngay dégg nit sax fekk sa mbokk la taxaw taxamu ne sa mbokk la mm-hmm. waaw koo xam ne booy tudd say mbokk boole ko ci mm-hmm. waaye bëgg nañoo xam euh, man huwa cheikhul islam radiyallahu Euh, avant nuy ñëw ci yeneen i questions yi. Mhm. Euh, muy laaj yoo xam ne nag tey yii moo xam naa ni du nekk yu yomb. Mhm. Euh, ci Cheikh Boucar yu la mhm. gaa yi war a séq jox la ko. waaye am nañu yaakaar. fi mu jëm daañu jot réponse boo xam ni luy sedd suñu xol lay doon. la wékar arab boo xoon ni yaa baariyal xawsi. bariyan yuxsinuha taatil xawsa baariha. loola waral nag njaboot gépp tànn la bëggoon nañu xam kan mooy Baye radiyallahu anhu moom Cheikh al Islam jërëjëf al Oustaz al Jalil yéen dàmbale rek da ngeen a dugg ngeen sax ci liggéeyu Cheikh Ibrahim di ngeen ne tuddee Cheikh Mariam tudd magam ja Cheikh Roqaya ñun ñëpp nag ñu am mag ji ñuy wax Seyda Fatimatu Zahra mooy waajur imam Hassan Cissé imam Cheikh Tidiane ak Cheikh Mahi Cissé mooy taawu Cheikh Ibrahim bu jigéen li olof yi di wax rek njëkk a juddu njëkk a baax moo ci njëkk a jàng alquran njëkk koo mën bàyyi jël ko dénk ko bras droit muy Cheikh Seydi Ali Cissé muy imaamam mi nga xam ne bàyyi na ne ko yaay sama tamaasini tamaasini moom la sidna Cheikh dénkoon njabootam ci mhm. Cheikh Tidiane mhm. yaral ma sama njaboot ndax aw ma jot mooy yar doomi bàyyi bàyyi ne mooy sëriñi waa Medina bàyyi dénk ko taawam muy soxna Fatima gannaaw boo xam ne soxna Fatima mën na alquran jàng na ko gis naa lettre bu bàyyi bind kenn ci kàngamu tariqa bi ci Maroc muy Cheikh Ahmed Soukayrij ne ko sama doom Fatima mook xaaj Abdoulaye sori nañ ci alquran jege nañ mokkal alquran waaye boole nañ ca ñoom ñaar mokkal nañ hadis xadis bu imam nawawi ci jamono jooju jigéen ju jàng alquran bay jàng xadis yenent bi di ko mokkal tumuranken la lool ndax sénégal ku ne xam ne ne njàngam jigéen muy diine muy tubaab lu yéex a tàmbali la jigéen moom boolewuñ ko woon ci pàcc boobu ba Cheikh Ibrahima daf daan wax sax ne ñun de suñ kàng bi sama kër baay de suñ kàng mi yaasin la yemoon ka fa ka fa rawoon ci alquran suratu yaasin la yemoon alhamdulilah barke baayam ak itee baayam ak tàggat gum leen tàggat ñoom dem nañ ba seen ay doom yu jigéen waxuma góor ñi mais doom yu jigéen sax di wattu alquran di ko mokkal gannaaw soxna Fatima soxna Khadija moo ci topp di umul fayda di borom alquran di borom jikko doy na ko rek ne moo yar sëriñ Mamoun Niass rakkam bu mbokk ak ndey ak baay moo yar Cheikh Mouhamad Mountakha muy waajuru Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Mountakha loolu rek exemple la ñun ci école wala ne jigéen ju baax la woon mhm. Seyda Umu Kal Seyda Roqeya moo ci topp mooy suñu waajuru jigéen mhm. bàyyee ko jàngal ah, mu jàng xam-xam teel a fendi bàyyi namm ko ne ko del bind ah, bu bindaan poème sax ci moom dafa njëkk a bind poème ci moom bàyyi jox ko benn libidoor jox ko or mhm. ne ko moom laa la décoré boo doolee ma dolli <laughs> boo doolee ma dolli eh. euh, bàyyi wan ko magam xaaj Abdullahi gis naa lettre bi ko xaaj Abdullahi bind soxna si ne ko sëriñ bi wan na ma poème bi nga bind ci moom en langue arabe muy lu jafe ndax way ci arabe lu jafe la mm. waaye alhamdulilah ñi ngi sant yàlla bi nga xamee ne lii nekkul barke bi njëkk a jëlee ci suñu baay mm-hmm. na yàlla yokk ay barke yu jógee ci moom di ñëw ci ñun amiin boole leen di jàngal xam euh, muy rawanteeg góor ñi am na poème bu leen Baye bindal daf ne daf ko yebal daf ko yónnee Sidi Ali Cissé ak Baye Ahmadou Thiam ne leen yéenay jàngal xale yi yéenay leen suivre ci bu ma leen jàngalee na ngeen leen examiner ku raw ngeen jox ko cadeau ku jël deuxième ngeen jox ko cadeau ku jël troisième ma ñaanal ko. oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mu ne bi Baye waxee ne ku jël troisième ma ñaanal ko moom dafa doon ñaan yàlla yàlla naa jël troisième ndax ma dal ci ñaan gi ñaan gi moo ko gënal cadeau bi mais boobu sox Seyda Roqeya moo ca doon jigéen poème ba ca ba leen Baye bindal mi ngi ci boole naan wal bintu kal ibni فكوني محرمة كلم تكوني لترومي مظلمة yow do yow xale bu jigéen bi góor gi sa collègue la ci ut xam-xam ak ci kawe ak ci yëkkatiku ak ci njëriñ diine ak ci njëriñ société bi bu mu la raw ci dara boo demee ci beneen woyam mi ngi naan yaa ayyuhal banaatu zaaximna ila naylil ola amma bi abdaanin fala yéen sama doomi jigéen yi xëccoo leen def leen compétition ak góor ñi ci jéem a baax ci jéem a tekki ci jéem a am xam-xam ci jéem a jéem a gëriñ seen société soxna roqee umu këlsum seeda umu këlsum moo topp ci moom moom it xamuñ jigéen ji ko njëkk a wattu alquran fii ci Afrique foofu parité mooy ñëw parité mooy ñëw ci bu ñu foogee parité ci tubaab yi la jógee parité moom bàyyi réglé na problème mu parité depuis longtemps bu yàgg ba ñuy war a jàng lexmeraar sax bàyyi daf leen examiner euh, ne euh, jox leen benn question ci sarf ci grammaire arabe ne ku gagné jël ko ñuy gaañ ñuy compétir di dem su ma benn nijaay la ak Cheikh Roqeya mu ne bàyyi dafa mujj ne ko ah soxna si gagné na de soxna si gagné na dal li moom lañ koy jox Cheikh ibrahim keur Baye li Cheikhaan yi wax rek mu ne góor ña góor lañ jigéen ñi góor lañ mais ku dul ñom bo taxaw ci sen bor gone ngay nek Allahu akbar ndax tagat gu len baye tagat biko ko Cheikhaan yi ndax yenn mbot yi gëna kawe ci tariqati yaan dañ koy jox jigen bayina ko man xamewuma góor xamewuma jigen ku góor lu la xam amal maqasidu fa haddu ما كل مجذوب بذاك العارف بل من فنى بعد البقاء وسلك baada al والنفس ملك لما خم ما يكون جيخ te des dellu si soobu yenu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te not bakkanam mu ne jikko yooyu critères yooyu ku ko remplir boo dee góor góor nga boo dee jigéen góor nga looloo tax ci pencam Cheikh Ibrahim jigéen ñee doon góor loolu ku mel ni Cheikh Amariam bi mu ñëw fii Dakar ci année cinquante yi mhm. jigéen ji ubbi daara di jàngale alquran raaroon na trop mhm. mu jàngale euh, alquran ba àdduna yëpp ràññee ko ñu tuddee ko xaadimatul quran la servante du saint coran mhm. bu ñu si Sénégal moom lañ koy jox ci lu amul mm-hmm. benn werante mm-hmm. dem ba le royaume d'Arabie Saoudite reconnaître ko tabaxal ko école euh, fekk na ma sax Angleterre ci conférence internationale boo xam ne euh, euh, président Angleterre moo ko organisé woon moom mu teew fa comme une femme musulmane modèle war a joxe exemple l'islam mm-hmm. soxna Roqee mi fondation Jimmy Carter président Amérique invité na ko ci conférence d'Atlanta bu ñu doon def ci gender equality and religion di waxtaan ci mbiri jigéen ak góor ak euh, diine ndax diine lislaam dafa delloo jigéen gannaaw wala daf ko yëkkati soxna Roqeya président Jim Carter Jimmy Carter nga xam ne président Amérique la woon nee na ko bi ma liiree sa livre bi nga bind muy position of women in islam cëru jigéen ci lislaam ci laa gindeeku ndax foogoon naa ne lislaam dafa toroxal jigéen dafa delloo jigéen gannaaw mm-hmm. kon ni góor ñi nekkee ambassadeurs yi xam-xam mm-hmm. ci kër Baye noonu la jigéen ñi nekkee ambassadeurs yi xam-xam ambassadeurs yi njub mm-hmm. Baye nee na boo xasee am ragal yàlla demal fu la neex te ragal ya watazawadu tazawadu fa inna xayra zadi taqwa alquran ko wax yóbbalu leen provision bi gën yóbbal gën moy ragal yàlla te bay dafa jàpp ne loolu moy jàngale yenenbi yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax yenentu bi moo ne jël leen seen genn diine ci jigen su ci jigen su ndaw su xess ci djublu ci soxnam aisha aisha dem bañu ñuy ci mom genn wàllu diine bari na hadith yu ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam yo xamne ci ndey aisha lañ ko jangé kon l'islam delloowut jigen gannaaw ben yoon Cheikh Ibrahim comme mujaddidul qarn comme réformateur comme revivificateur de la foi islamique bi ñëwé dafa délo nit ñi ci jàngale yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moy mooy ne góor baxna jigen bax ndax bi yenentu ñëw fekk na ko am doom ju jigen gasul suul ko wéydal ma udutu suilat bi ay bin qutilat kiñ ray juddu nek jigen ñu gas ko sul bu bés pencee suñu borom bi da danañu laaj ban bakkar la defon bañ sul ko ida bushira ahadun bil unsa dhalla wajhu musaddan wa huwa kadhim ko am doom ju jigen ñëkkal sa kanam triste ba yàlla di wax ni ban bakkar la def ba nga sibee sibeeku nii ba di ko gas di suul ndax dafa judd rek nekk jigéen te yaaram dañ daan wax naan jigéen moom ndimbalam mooy yuuxu rek wa yaay yooyu mu jëm mooy nga muur ko jox ko beneen góor mu dem donc amul njëriñ jarut muy dund yenent bi ñëw def révolution tudd ne góor baax na jigéen baax ki jébbalu ci jigéen ki jébbalu ci góor ki saraxe ci góor ki saraxe ci jigéen kii tudd yàlla ci góor ki tudd yàlla ci jigéen ki sàmm boppam ci jigéen ki sàmm boppam ci góor mm. ñoom ñëpp أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يلا بريبار لنا بريبار لنا يول بمك أكسالير بمك مك مي الجنة كون نين أمي تي جامو يالي نون نين أمي تي نك جنوال لغور فور موتالي يمانتي سوسيتي دوم آدم دوغو مانا مك لول باتي لتي بكو شيخ إبراهيم wa cheikh ibrahim pour jangale moy kan lu jafé la ndax ben talibem di شيخاني محمد طلباك وجر موي ستو محمد الحافظ الشنقيطي ميغا خامني موي سل ويس افريكان بو جيلي يودو تيجان تي تيجان رضي الله شيخاني ستو جبل باي بوبام نانا باي من دما نيو دوله من ويردو يو بري خاوي بري من مكو تماك ياك يالا واو في نياتني رياضه ول كدو تاغات ما رك يوب ما سي سما بروم ما خام لي غاي خام تدوما سونو دايناكو ام nga mbeugel te dëggu nga ñaar yooyu ku ko am rek yegg ci yàlla dafay yomb ci moom ci moom dafay yomb ci moom tax mhm. taxool zikar ak tudd yàlla ndax tuur du tàggoog borom mhm. taxool zikar ak tudd yàlla cheikhaani moom moo ne bàyyi maqaama bu ñu tudd rek yëg nga ko waaye yëg nga ci dayoo maxaama ci yàlla foo xam ne jomb na nit sàkku ko sa maqaama dafa nëbbu nëbbu ñëpp ba nëbbu la sax yow mhm. pour wan la rek dayoo Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala waaye bàyyi li dal yonentu daf koo dal ndax ku nekk ku nekk nga doon da nga koy niru moom daf ñuy waxtaanal ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibnu Abdullahi mooy doomi Abdullahi ak Aminata waaye danañuy waxtaanal tamit ci Muhammadu Abdullahi ki nga xam ne mooy jaami pays yàlla bi ki nga xam ne moom moom mooy yónni yonentu yi daanaka ay ndawam lañ moo leen tëbb moo leen inspiré ñaari aspect yi dafay ñëw ci bàyyi mën nañu waxtaan ci Ibrahima ibnu Abdullahi mën nañu waxtaan ci Ibrahima Abdullahi nga xamne mom jitu na jamono ak barab foofu ngay dege buy wax ne halima al Mustafa la aqla yudriku sallal ilahu alayhi munzil al kutubi sama intimité ak yenentu bi xel mënu koo wër mënu koo cerner yàlla yàlla julli ci mom amin ya rabbal alamin yi wax nan bama koy bëgg yàlla bindagut mbindeef kon mom booba lan la won kon boy wax ci dimension boy wax ci bàyyi ci dimension bobu dang ci ciy gërëm wax ca du yomb wa da'u masunan bil jalali muhajjaba couvre-le avec le voile de la majesté le po le poète ba waxon dang koy muur ak muuraayu mag rek te xamne ne mo meuno ci cee wax. koku moy madana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu waaye bu ci Seydi Ali Cissé mi ko xam lool. di bay génne aduna dellu ci boromam ñu ne ko kuy bay, ku doon bay ku doon Cheikh Ibrahim mu ne serigne bi julit la jangale kat yi dañuy lapidaire dañ lay wax ben bat bo xamne ne na wundu ay téere. Mhm. kuy bay mu ne serigne bi julit la won mom moom rek la ton loolu la ton سرين بجلد لون جلد لون الله أكبر جلد جلد في شيخ إبراهيم بنا جلد لما يكو قمنا لأي ترى ديمانسيون دي الإسلام وي الإسلام جبل ويرنا إيمانا مغم يالله ويرنا أمو درلو جسك إحسانا مو إلا بيان فزانس ولا بيل أجير يجي قم يجي تي الله قمكو تم فنش جيخي تلي جفم مدن سك موتاخ دو أزار مو بيندو تيري تدريكو مقامات الدين الثلاث le trois dimension de la religion muy l'islam iman ihsan bu ñuy wax ci kuy bàyyi mën ngaa wax ne yenentu bi moo ne jullit mooy ko xam ne jullit ñi mucc nañ ci loxoom ak ci làmmeñam bàyyi jullit ñi mucc nañ ci loxoom mucc nañ ci làmmeñam waaye sax ak contrario dafa dox ci lu jëriñ jullit ñi ndax yenent bi mu ñu jàngale borom bi moo ne alxalqu iyaalullah mbindeef yi njabootu yàlla lañ mhm. yàlla kim ci gën a bëgg mooy ki ëpp njëriñ ci mbindeef yàlla Cheikh Ibrahim ku jëriñ mbindeef yàlla yi ndax jëriñ mbindeef yàlla yi weesuwut nga fexe ba jugee leen ci servitude ci jaamu leneen lu dul yàlla yóbbu leen ci ñu wéetal yàlla ak jaam xam ne benn buur lañ am mooy yàlla ñun ñu ci des yëpp ay égo lañ ñoo bokk ngàllo gi ni ko suñ bàyyi oustaz Barham Diop daan waxee loolu révolution la bu mag a mag fexe ba bakkan bi libéré wu ci la hantise des passions ما لم تجاني بنت طالب يمكن نيجيريا دفني والنفس تلك هي المراد فان صفر يجري الصفا لسائر العواقب دفر بكن بي لول موي تياكو تي في باي الله بكن بي بو باخي رك لي تي ديس ييب لي ليسانسييل لي تي ديس ييب موي ليسانسييل دافاي باخ ما شاء الله باي رضي الله تعالى عنه داف دي نونو تي ينتو محمد صلى الله عليه وسلم موم لا تودي لو غران دي بروميس بروميس يي جوغي تي ينتو محمد صلى الله عليه وسلم موي لب لو نيوري تي نوبوتو تي ديغنت القران اك سنه dafa ñëw dekkal ko jox ko nit ñi yombal ko ndax cheikh ibrahim boo déggee muy wax ci olof suñu benn maam sëñ omar fati jàll dafa wax ne bàyyi amul waxi olof lu mu la wax rek alquran la wala hadis dafa laa bañ a sonal di la indil ay texte mhm. mu lay bure mu wax la olof bi nga xam bu wax arab nag nga xam ne kii dëgg-dëgg képp ku namp daab wala nga jàng ko moo la ko gën a dégg moom bàyyi moom bàyyi te nim doon nim daan tafsiri alquran ci wolof noonu la ko daan tafsiri ci arab noonu la ko doon tafsiré ci ci arab loolu Cheikh Ibrahim dafa mën a jàng. jërëjëf taala wax na benn waxam ne xam-xam dama ko jàng lool. macha allah ci buntab sant yàlla. mais li doy waar xam-xamam ba Baye Baye fan la jàngee fan. Baye jàngu ci kenn ku may waajuram muy El Hadj Abdoulaye Niass. moom rek moo ko jàngal. waaw waaw ci lu wér. jëlee naa ci sama bu ñuy wax El Hadj Mouhamad Tuuti Niass ci ñi mag ci Niassène la fi mu nekk nii. mu ne Cheikh maam Cheikh Omar nga xam ne doom la ci Hadj Abdoulaye. Mhm. maam Cheikh Omar Baye ma lu tuddee Cheikh ma lu tuddee Cheikh daf daan wax ne xalifa moom a magee fukki at ma magee bàyyi fukki at mu ko mag la bàyyi waaye nee na dars bi ñu mujj a jàng ci alhaji Abdoulaye Niass ñoom ñoo ko jàngandoor ak bàyyi ci kanam alhaji Abdoulaye Niass muy darsab lixmiraar ku ne xam ne lixmiraar ni mel di grammaire supérieure nga xam ne alfiye lañ jël woyaat ko juney bayti yee nekk nekk ñaari juney bayti maam alaaji ba téere bi ñëwee ci gox boobu yegg seegutoon Sénégal yegg seegutoon boor boobu maam alaaji lay téere bi de incha allah jànguma ko waaye danaa ko jàngale ci himma Cheikh Ahmada Tidiane radiallahu anhu jànguma ko waaye danaa ko jàngale fekk am na naar yoo xam ne ñoo ko daan sottil téere yi nekk awlaad daymaan yi ca Mauritanie gis naa lettre bu mu leen bind ci loxo secrétaire am ba alxaaj Mouhamad Zeynab bu doomam ju baax ja lettre boobu maam laaj daf leen ko yónnee rek weer la ci te génn àdduna maa ngi cay wax waa awlaad daymaan yi si ñi ko daan sottil téere yi ne ko téere yi ñu sottil yi nga yónnee bëri na xaaral bañ fay yi yëpp bam jeex nga doog a yónnee yeneen ndax tubaab bi sonal la ñoo seen impôt yi xaaral ba téere yi yëpp jeex nga doog a yónnee yeneen naar yooyu la jox lexmiraar copie bi mu ci amoon ne nañ ko sotti ay copie lu tolloog li muy doomam yi àgg ci niveau boobu ci xam-xam hmm. ñu sotti ko mu toog di leen ko jàngal maama laaj ba leen ko daan jàngal ñu ne léeg-léeg ñu àgg ci masala boo xam ne bu jafe la dafay jug dem jàppi hmm. xaaral ma dem jàpp buy jàpp dañ koy dégg muy wax langue boo xam ne xamuñ ban langue la ñu ngi ko teg la langue syriaque muy suriyaani yi nga xam ne wàllu yii dañ koy dégg euh, Cheikh Abdou Aziz Dabakh borom Ibris mhm. dafay wax ne diwaanul awliya yi moom langue boobu mooy seen langue de travail moom lañu moom la waxtaanee bu yenentu bi teewee président séance bi rek ci la wàllu yi di wax arab mais bu ñu nekkee ñoom mu neen suriyaani yi la ñu mamalaa ji loolu lañ koy dégg muy wax bu ñibbisee rek dars bi leer nañ ñu ne ah dem na ci Cheikh Tidiane ba ñëw kon maam alaaji nee na téere yi mu jàngut yëpp bëgg gum bëgg Cheikh Tidiane ak jeex gum ci moom ci la ko ko yàlla xamale kon dars bi bàyyi ci kaw suuf maam Cheikh Omar magam bu ko magee fukki at mhm. moo ne maam Alaaji Abdoulaye moo ko jàngal waaye nag Cheikhaani ne noonu bàyyi dana la indil lu nekk ci téere dana la indil loo dul gis ci benn téere Cheikhaani moo wax loolu moo waxul loolu wattaqullaha wa yuallimukumullah wallaahi mhm. ragalal yàlla yàlla xamal la mhm. te moom nag dëgg-dëgg ragal yàlla mooy mooy baaxam muy la garant des promesses laa doon wax li ñoree ci nubuwa yëpp jox nañu ko alquran ci jiitu jàng na ko mokkal ko lool ba ba mel ni alquranam ji mook moom a maase ndax nu mu ko teelee wattu te musu ko fàtte moo ñaanoon ca njël فلتجعل الحفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم شوقي وحبي فيك لا يشفي سوى حلولي وارتحالي فيه نروم أن يسحبنا مدى الدوام بحفظنا له ولو حال المنام قطني به قطني وقد كفاني كتابك الشافي لدى الأحزان سنجل بلنا يو يلا دفل وقت القرآن القرآن جي منك سما كرامة سما ميراكل ننك موكل القرآن والي بنا دي أم كرامة سما ميراكل ننك موكل القرآن موكل بجيجي دايو te duma ko fàtte mu sax ci man ànd ak man ba ba may génn àddina faatu di daje ak yow ndax bëgg gi ma la bëgg dafay taal ci sama xol safaraay mbëggeel goo xam ne dara mënu koo fay lu may may yéeg ci alxuraan di ci wàcc heure bu ma àggee ci alif laam jàng bi ci minal jinnati wan naasi rek may yéegaat te loolu mooy saaxibul quraan mm. yonent bi nee na saaxibul quraan mooy kan mooy koo xam ne bu jeexalee rek yéegaat di tukki ci biir alxuraan maa sha mu ne doy na ma doy na ma doy na ma sa téere bi nga xam ne mooy saafara sama jàngoro yi jàqare tarkala waaye loolu. li lay wan ne lu ñaan rek yàlla may na ko ko. bi mu nekkee ci lo dundam bi mujj fanam yi mujj ci dundam ci Angleterre dugg bloc opératoire génn nekk sous anesthésie di nelaw sëtam imam Hassan Cissé nee na waxtu bi mu daan jàng alquran bi mu jotee rek bàyyi mi ngi nelaw mais daf na relève di tari alquran. allahu akbar loolu mooy ngay jàng alquran ba alquran mujj di la jàng. boobu boobu bi ci feebar bi. mi ngi nelaw mi ngi ko anesthésié mi ngi nelaw. mi ngi nelaw allahu akbar mi ngi nelaw mais bi heure bi mu daan jàng soxam bi ndax moom daf na bi yow mi at بجهل وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله فهل ابصرت عيناك احلى معيشة من العبد فهو لله كله رايت رسول الله بمجد صلى الله عليه وسلم بتشك ماغي جانغ القران ان سيتيم غودي بما جانغون ما تاريكو بو سيمين بي جيهي ما مسكا مسكا غيس كوما غنا نيه دوندو واي جانغ بار جور امام موني ميني سوزانستي دي نالو مي دا فا كومونسي دي القران تي ميغي يس لولو موي لم نيانون فتجالن حفظ كتابك الكريم نرو مو ان يصبرنا مدى الدوام بحفظنا له ولو حال المنام دونت ماغي نالو صاح بون ما فك بك بكلي ما تري القران بام ديا كوكو موي مولانا شيخ ابراهيم القران ما نديكي انا تي موكل كو أمم. نديكي انا تي جانغالي كو ناخ غناو بايام غيني ادنا 1922 ماغام يبل كو كوسي تي دك بوم خا فلا توري بايام مي نيكون موي جانغالي القران دي جانغالي دي جانغالي خام خام دي ياري فلا نديكي جوخي ويدو تي كون لي جوغي تي يينتو بي موي القران اك حديث موكو جانغال نيب wax na taalibeem Omar ibnu Malik ne ko sama sëriñ ci zahir mooy alquran ak sunna kenn du ta kenn gënuma koo dégg suma ku ma ko gën a dégg sama sëriñ ci baatin mooy Cheikhu Tidiane te du ma tàggoog moom benn waxtu mu ne ko naka la ay di jaaree ci alquran ak sunna ak ci Cheikh Tidiane yiw rek moo mën a jugee ci ñaar ñooñu kon li jógee li waddee ci Cheikh it moo ko sàmm ba jox ñu ko ndax yenentu ma jëmi shariatu Cheikh Ahmad Tidiane yi taalibeem ba di jëmmi xaqiqatu dégg gën a dégg ñaar yëpp ñëpp ba taxaw mu ne xadamaay haataani ala raqabati kulli waliyillaahi min ladun aadama ila nafxi fi suuf sama ñaari yi mi ngi yëpp la ko dalee ci aadama ba ba ñuy effet trompette ba di wal yi mm-hmm. muy tànk charia ak xaqiqa moo ko gën a dégg ñëpp Cheikh Ibrahima donn ko ci ñaar yooyu noonu li rusee ci wilaayatu moo ko segg jox ñu ko ndax tariqa yoon la wala jëmee pour nga àgg ca péyëb yàlla ba te bi mu ñëwee ne na tawaytu وسهرت الطريق الى الحق لكل مريد الوصل للحق بالحق لم نات يومبلنا يون وي جيم تي يالا نيال كيب كو خامني بغنا ياغ تي يالا تي دغ نكو دالي تي ادم بو باني افي ترومبيت با دي وال بوفتي بي يالا بنتيام جامي موي تانك شريعه حقيقه موكو غنا دغ نيب شيخ ابراهيم دون نكو تي نيار يوي نونو لي روسي تي ولايتو موكو سيغ جوخ نيكو نداخ طريقه يون لا ولا جيمي بور اغ تي بي يالا با te bi mu ñëwee nee na tawaytu wa sahaltu tariqa ila alxaqi li kulli muridil wasli lil xaqi bil xaqi lem naa te yombal naa yoon wi jëm ci yàlla ñeel képp koo xam ne bëgg naa yegg ci yàlla ci dëgg barakallah macha allah macha allah leer na yaakaar naa mbokk yi alaaj Pape ñu ngi gën a xam kanay bàyyi radiallahu taala anhu oustaz Modou jërëjëf oustaz Pape Hann yaakaar naa mboolem kuy soppey Maulana Cheikh Ibrahima Niass bëgg nga ci xam dëgg-dëgg kan mooy Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi ci ndokkeel sunu mbokk njaseen yëpp nga xam ni seen xol bépp boo ko xaree Medina Baye rek nga ciy fekk waaye ëmbal cofeel gu rëy nag Maulana Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi ndokkeel Ousmane Noël Dieng bu baax moomu nga xam ni lii ma lii ma sañse tey moom ma ko sañseel mm. ni ma nag comme dañuy waxtaane Baye Niass la nga fay sol maa la koy sañseel ñu ñaanal ko yàlla yàlla yokk teraangaam bu baax ci daraje Seydina Muhammad mu mel ni question bi may posé mi ngi jëm ci diggante Baye ak ay mayam li ko yàlla defal bari na waaye li nga ñu mën a wax rek ci ay may Baye waaye diggante Baye nag ak weeru koor parce que nitu yàlla bu ci nekk dafa am noo daan dundee weeru koor waaye ñu bëggoon a xam Baye bu koor masaana jot naka lay dundee weer wi dëgg la oustaz Jalil maa ngi lay ndokkeel di la gërëm ci laaj boobu noonu Cheikh Ibrahim dafa dafa dafa bëri ay may ndax koo xam ne na raqitu zural irfani jubtul mafawisa ila alxadat al aliya walil faydi xaayida damaa yéeg njoloxtoni xam-xam montagne la somme du savoir et de la news dama ko escalader yéeg ba ca kaw ma dem ba ci pays yàlla ba jël faydu bi indi faydu mooy abondance mooy waame mooy mar naan ci yàlla ci xam-xam ci diine ci jikko ba ci àdduna sax bawut dara mm-hmm. yàlla daf ko jox faydu boobu noonu ay mayam dafa bari ndax juddu ci diggante alxaaji abdoulaye ak soxna aysatu jànq rek doy na may mm-hmm. alhamdulilahi nachatu tahiran maa qultu faxran bal natabtu shakira maa ngi sant yàlla dama sosu rek laab waxuma ko ngir pukkare waaye dama ko wax ngir sant yàlla lay ndeysaan bàyyam mooy taabat arumu taabat anasiruhu li awal atin warisa siyaadata sayidan an sayidi an sindidin an sayidin an sayidi <laughs> moo ko ko taggee ne na mam alaaji mam hmm. alaaji dafa sosu rek donnu kawe ak ak càng di diggante buur ak sang dégg la buur yee ko jur ba mu yàgg rek sëriñ si jur ko waaye muy seen diggale bu dee caq urus la diggale bay taaral askan wi muy alxaaji Abdoulaye Niass. parce que ko ku muy sa baay ba Cheikh Moussa Ka mu Cheikh Ahmadou Bamba mu mag ma le grand poète. way na maam alaaji bi mu set see baay dafa gane si Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mu ne ndaw leer ci kaw leer ba leeri Sidi Ibra sosoo ci leeri alxaaji Abdoulahi Barhama yaa astu wàcc nga ndax bii kàngam sàggan du ko jur ne mooy danooy Cheikh Tidiane ka Barhama maam alaaji mooy waajuram mu góor wax na benn poète bu woy maam alaaji mooy daaliye bi ma wax léegi mu loolu ne ko yaa ngi gis maa ngi bëgg ci sa woy wi loolu nag nekkul ne ngaa tagg sama baay rek ma kontaan loolu aada la te ñun aada dëgg dëgg xeex nañu moom damaa fekk sama baay bokk ci góor yàlla yi loolu tax ma bëgg waaye nekkul ne li ma jur moo tax baay jooju nga xam ne nee na jazallahu cheikhan qaadani li widaadi jaza karimi ni'ma cheikhan wa murtada yàlla yàlla fay sama baay sama sëriñ bi nga xam ne ah moo ma womat ci bëgg yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na feneen ca nachimu buruq nasri ca serul qalbi ne moo bàyyi ji nga xam ne cheikh yi wa muallim yi sama cheikh ki ma jàngal mi nga xam ne tàggat na ma ba man cheytaane sama cheytaane tuub na cheytaane daf lay def yu bon di la jaxase waaye man sama cheytaane dafa far sax tuub du ma digal mukk lu bon tuub na te loolu sama bàyyi moo ma yar bàyyi moo ko yar ci loolu bàyyi la joo xam ne man gis naa testament yi mujj bind benn bi tariqa tijaan lay dénkaane ba ca mujj téeréem yi kàggoom gi lay dénkaane na wax na la fa nekk ci ay livre ak ci defa ko par rangé ko bu ci nekk fànn ya fa nekk nekk nekk soxnaam yi nekk bu nekk ka mag ci góor ñi nañ ko jox caabi bibliothèque bi mu signé mu ne nag képp koo xam ne bugguloo xam-xam te bugguloo njub bu fa teg sa tànk te dogoon ak yow amut ak yow benn affaire xam nga bàyyi juy dëgmal alaxira bàyyi njabootam moo mën a defar ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim fii ci yor ba di baaraama bëri na ko fii ci biir Sénégal sa gétt ak nga yor ba mooy su di baaraama su di baaraam muy bir géttam wallaayi ci biir Sénégal Bisep kerok nyepuhim nanya, na ña gaañi baa mag ibra asta gone du bergit ku amul nakal, lu dajal. daajal gaañi baarama ba baa ñu ndimbal kaya fop xontu ya taaj keroog la géttam fees moom si di baara ba bët sete ubbi mbal kaya fop xontu ya taaj nag yey bumbu naan alaa baay gaañi baara amaa keroog gis naa bar mool bu rombu ndeyam hay naan ko doode naan dal yow amoo xontu maa ngi seet gaañi baara am ma ne waat ne dootul xiif fa Seydi Baraam ca kaasu leer yaa la koy nandala gaañi baaraam ma gis nga yëkk siiwe todde ba ca ya yëkk yëpp ñan ca géttaak gaañi baaraam ma teras juma tereewul lay jommi ci Seydi Baraama jàkka taxul nga jàkkaarloog gaañi baaraama imaam bu naan baleen laa ilaaha hëy ndaw doy waar boobu imaamatul ma'muum gaañi baaraama newetu raxmaan ba taw na wallaayi mbottu yaa ngay ŋaax baatu laa ilaaha la ñuy ŋaaxee sidi baaraama baarakallah masha mu ne nawetu raxmaan bi taw na mbotti mbottu yaa ngay ŋaax baatub laa ilaa la ñu ŋaaxee Seydi Barham baatub laa ilaa illallah bi moom la bàyyi tasaare ci ci ci àdduna bi te yonent bi daf ne woon dañ ma yebal pour ma jox tasaare baat laa ilaa illallah nit ñi seede ne laa ilaa illallah Muhammadu rasulullah bu ñu ko waxee seen deret ak seen der xaraam na ma bàyyi nag yetam la yore di wër pour tasaare njub te am na ci résultat yoo xam ne yaa ngi wax ci ay mayam résultat yi ci am de mémoire doom wala ci biir daawa islamiya résultat yoo xam ne man de su ma gis-gis bu gàtt gisaguma ko moom ci boppam wax na ko biñ ko laajee ban méthode ngay ootee jëm ci yàlla daf ne zakartuhum bil xaaliqil mannaani ragabtuhum aydan ilal jinaani daawatuhum laha min anniiraani aqulu xaqi saabita aljinaani kullun ajaaba daawati fi maxfali mulukuha walkubara asfali fa qultu laa ilaha illa allahu محمد أرسله صلى الله عليه وسلم فقاله الكفار والمجوس والأمراء فتابت النفس nan ngay oote jëm ci yàlla mu ne dem nga xool méthode bi rek ku doon yonentu dëgg-dëgg nan ngay ooyee ku gëmut yàlla pour mu gëm yàlla mu ne dama koy fàttali ne yàlla mooy kii bind te mooy kii xéewle lu mu gàtt-gàtt xel xam na ne moom lay xéewal juddu na ràññe na mi ngi lekk mi ngi naan mi ngi solu yàlla nga koy tawal am na fu mu dugg nit ki lu mu gàtt-gàtt xel bu xoolee xam na ne indiwu fi boppam mhm. te bàyyiwu fi boppam te dana fi mës a jugee bu fi jugee fi mu jëm mhm. débat bu théologique boobu fa la ko bàyyi di dugal mu ne mu ne bu paree raqabtum ilal jinaan yi dama koy xemem loo aljanna la fa nekk ci xéewal nga xam ne yenentu ne na la fa nekk ci xéewal bët masu koo gis nopp mësu koo dégg mës sa toq ci xolab jaam bu boobaa dana bëgg aljanna ma wax ko safara ni mu ragloo ak ni mu bonee ak ni mu yàggee bu boobaa dana sib safara ma wax ko loolu nag aqulu xaqi saabital jinaani wax ko ko d'un cœur ferme et convaincu yow miy waare yaa war a njëkk a waaru bu ma xoolee rek xoolam l'islam dana ci dugg mu ne nag ma ñëw wàcc ci dajee gaana 1952 ci ab jotaay wax laa ilaha illallah muhammadu muhammadu rasulullah yéefar yéeg jaamu ko te xëram yëpp bali fima ma ci baat boobu noonu buur yeeg badoro yi ñëpp uy sima ci muy tukkee moomu 1952 ci diggante tamali ak yende nga xamné 2 jours bëtt bu set 8000 personnes minimum dugg nañ ci l'islam muy 16000 personnes yu dugg ci l'islam ci ñaari bëtt ba bàyyi wax naan rajatu min ankara lil iyaali lawlaahumu tas'a lil tas'a li majali li khidmati l'islam inna yawman fil l qutri zaaka alfi xallil lawma ma akara ngir dellu ci njaboot ga billaay bu taxtu na njaboot gi ma bàyyi gannaaw fii laay sax ndax benn bés bu ma def ci àll bi di oo nit ñi ci yàlla ak yu wétal yàlla moo gën junee bés loolu ci may Cheikh Ibrahima yi la waaye bàyyi ak weeru ko loolu nag question bu doy waar la bi xaj mudu laaj mm. ndax bokk na ci may étranger dina def ndànk euh, bañ a ñuuxu koo xam ni xamu ko mm. mais bokk na ci may bàyyi radiyallahu anhu jóge Sénégal dem bitim réew convaincre fa ay milliers de personnes ñoo xam ne xamuñu ko mosuñu ko gis loolu loolu may la nag ah loolu may gu rëy la waaye mooy ndigal moy ndigal wa daaiyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira mais bay ñata langue la daan lak lolu luma yim yéem la nag sax bukaar olof ak arab lay wax français lu ñu wax mën na koo dégg mën na ci for ay baat bu ñu ci bir ci défi yim jakarlo rapport bi njëkk def ci mom 1933 commandant de cercle bi nekkoon Sine Saloum nee euh, le marabout le plus entouré s'appelle Ibrahima Niass il est l'un des plus actifs propagandistes du retour à la terre hmm. pour le moment il ne parle que quelques mots de français. pour le moment il ne parle que quelques mots de français xam naa du du weesu bonjour. bonjour du ko weesu. mais mais am na ñoo xam ni làkkuñu arab làkkuñu olof làkkuñu français. te dañuy ñëw mit na bàyyi ah. waaye ndigal ak jës bu li li su fii di wax étreinte bàyyi dafay ñoddi magamal xaaj moom Zeynabu daf ne ko yurabbi bi anwaai tarabbi bi بانواع التربي جميعها bi alxaazihi او aw من luqmati mu ne bépp fànn bu ñu yaree la bàyyi di yaree benn mu tibb jox la benn mu benn nga toog ak moom mu wàll la ndax nee na woon seexaan yi del toog nit ñu baax ñi ndax ni leppre mel jàngoro ju mag ji ba boo dendek kum dal mu wàll la booy dend ak ku baax mbaax day wàllaate bàyyi am na aimant bu nekk ci moom étreinte moom la ñuy wax jës bu daf lay anglais nan ko pool pooling daf lay ñoddi rek sànni la ci pay bi daf lay ñoddi sànni la ci pay ndax ndigal moom moo ne qad jaa idun fi siyaahati faha anni asiru aktafi zawin nuha damaa am ndigal ci tukki tourisme religieux ci yàlla ngir daje borom xel yu sell yi fële ca Mauritanie mu ne alima xaaliqi bi anna safari maa fii xazun min xuzuz albashari alqaytu kulla garadin an duburi wa jitu ashiyaxan safaw an kadari lépp lu nit di soxla ba tax muy tukki pour yaxantu wala pour ut ko man ba may mbañam rus ci laa am lépp loo xam ne soxla naa ko bu dee tukki pour fàggu xam-xam la njëkk may xàmmee lépp lu ñuy war a jàng li ñuy toxal ci téere ak xam-xam yoo xam ne ci xol lay rot yàlla xamal na ma ko koo xam ne nee na waqat tama fatxi inda mahdi waqat anat jamiu rijaali xaybi taxta qadaayi inda mahdi waqat anat jamiu القيب قضائي فما قطع في الشرق والغرب فدا إلا مكة إلا لشم شذائي باين والإملاء وعين اليوم عين محمد سرى سره في كلي وروائي وأهل الزمان كلهم فاض راقيا سوى من كلا نهجي أسير هوائي dëgg la mu ne koo xam ne nee na man bi may nekk ci berceau ci la sama xam xam yàlla mat góori xay bi yëpp nekk ci sama ron ah ngir barko barkeelu ji ngir jox seen farata ngir lu ngir xencu sama jeexital loolu lan la ci da nga ci déggee mooy wiraasaam ndonoom gu mat sëkk ci yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ndax ca njëlbeen la waxoon asal Mustafa yow يجود بنظرة تغسل أوزاري وقلبي تثمر وإن شاء قواني لحمل خلافة لكي أرفع التوحيد والكل مؤمن من أمانة مصطفى كي على تان مخول ما بين رجال بين خول بو خمنة دنا رخص سماي نياوتي فيك سماي بكار دوفل سما خول بوكو نيهي مو دغرل ما ينو خلافة خلافة مو إلى ليدنانس يالا مو دما غارل سما ليدنانس سما فيزيرانس تي كاو سوف malaaka yi yeeg ñëpp gaar malaaka yi ne attanuñ ko suuf ne attanu ko montagne yi ne attanuñ ko doomu aadama ne moom attan na ko liet naas xilaafa googu noonu mësta wét ci jamono xilaafa ak yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mooy xalifa yàlla bi Cheikh Ibrahim daf ko doon ba jeexal ko takk moo tax mu naan yenentu bi bu ko neexee mu dëgëral ma pour ma yenu xilaafa gi waaye lan laa koy jëriñoo li koy arfa tawxida wal kullu muminu ngir ma yëkkati tawxid way wéetal yàlla ñëpp nekk ay jullit yu gëm yàlla mu teg ca ne li yuslima julul naas yi aqtulu baadahum jihaadan fa inni muminum bika muxsinun ñenn ci ñoom ma rey leen ci jihaat waxut jihaatu jaase jihaatu nafs ndax du ñëpp a mën a yegg ci jihaatu nafs mooy dem ba not bakkan bi jeex ci jëmi yàlla ji ñooñu la bàyyi wax jihaadu nafs bàyyi moom jihaadam du jihaadu enu jaase di dóor jihaadu cheikh yi fi naasi bi xalamin laysa bil faasi walam yaku qattu labaasan bi atroin aw bi na ko maram kii waxee Cheikh Ahmed Tidiane doomi Cheikh Abdou Qadir Zaria mu ne jihaadu bàyyi ci nit ñi xalimba la ko defee waaye defeewu ko defeewu ko jaase mu ne yeneen bu ko neexee mu yen ma xilaafaam gi kenn ci woykatam yi ci olof muy Omar Thiam Omar Gada Gada borom faxaas yi salaamun woy na ko woy bu rafet nee na ba yàlla di làngal jinne yi ak jibaalu bëgg leen a yen yen ba dañoo xandaalu mu daal di hoo suñ bàyyi insun kaamil naan ko yenul ma yen bi yow mi kaamil ينو المين بي يومي كامل خلافة قبير قبو كوكو دون تيون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فوت يورك باي وغنكو مني وكلما جئنا في محطة تظن تحسب أن حل فيهم ذو خطة لما يدم قانا استاشيو بون تخورك غفوني ينو تبي موفتيو صلى الله عليه وسلم استاشيو بون تخورك غفوني ينو تبي موفتيو مني يالا مو يمي ينو تبي دي لورنا يكو تبطحا تقور مكة يصبكو تبي مدينة منورة mi ngi wax ne booba ca Sénégal mën naa am ci njëlbeen yombutoon mm-hmm. waaye moom làkkat yi fanaan na ci Niger bind Seydi Ali Cissé lettre ne ko maa ngi ci dëkk boo xam ne ku may weddi nekku fi te mu ëpp Sénégal moom Baye Niger maa ngi ci dëkk boo xam ne ku may weddi nekku fi te moo ëpp Sénégal moo ëpp Sénégal. Allahu akbar laata bi ñu ko bind 1955 ah, nee na ah am na ñenn ci ñoom am na ci yoo xam ne de ba léegi ña ngay nelaw. boobu Nigéria la wala Ghana Sénégal lay wax bàyyi mu ne am na ci Sénégal ñoo xam ne ba léegi ñu ngi nelaw ñu ngi nelaw wuuteeg fii ma fanaan nga xam ne ku may weddi nekku fi fan la fanaan boobu foofu mi ngi ci ci Nigéria la ci Nigéria Nigéria dafa jugee dem Niger dëkk bu ñuy wax buur mi ca Niger délégation bu jugee ca buur kanu sax fekk na ko fa di ko ñaan pour mu dem fekki ko kanu firil ko firil ko alquran macha allah kooku mooy Cheikh Ibrahima oustaz doon na laaj ci weeru koor bu ngeen bëggee ñu ñëw ci ci diggante bàyyi ak ak weeru koor weeru koor ku ne xam ne ne mooy tànnee fi weer yi Ah, yàlla daf ko wàcce ci ñun ngir ñu texe ngir ñu am ragal yàlla boo seetloo les cinq piliers de l'islam mu juróom ponk l'islam yi bu ci nekk rek jës bu na la pour nga yegg ci sa borom yooyu yàlla dafa am ci te xam ne dégg nii entendement yi yemuñ yow boo waxee baati seede yi rek war ngaa mën a yegg ci yàlla mm-hmm. baati seede yi rek laa ilaha illa allah rasulullah julli bàyyi mu ne boo jàppee ba mu set jàpp ba mu set nga taxawal julli ne allahu akbar dem ba àgg ci sujoot mu ne wasalta ilal mahbubi kabir wa azimi yegg nga ci yàlla kabaral ngir nga màggal ko ndax salal Moustapha lay leen wa waafa bi xamsatin arajna biha wal fadli lil mutaqaddimi yenentu bi dafa rañaan guddi dem indil ñu juróomi julli pour ñu rañaanee ci waaye moom mi njëkk a rañaan nag te moom rek a rañaan dëgg-dëgg nga ne li ñeel na ko kon julli rañaan la pour nga yegg ci yàlla sarax azaka noonu la naa Aïcha jën na sarax war koo joxe ndax ah xaaral ma parfumé ko ndax sarax bi day jaar ci loxo yàlla yàlla laay jox yonent bi sallallahu alayhi ko ah Aïcha yaa ngi bëgg dégg nag kon sarax yow yaay joxe ñu ne sa moromi jaam mooy tàllal te yàllaay nangu loolu kuy xelaat alquran ñi am entendement ñi am dégg ulul albab lay wax ak war nga cee mën a xalamee aj nag moom daf ne fàng mm. moom yàlla ju ne fàng la yaa nga jëm ca néeg ba ñu ne néeg yàlla la bàyyi mu ne boy wër nek ba jàppal la yaangi wër jëm yàlla ji boy dox ci safa ak marwa yaangi doxantu ci digënté tur yàlla yi ak melo yu rafet yi bo tëre sa hëd yu diko rendi sa bakkan bu soufé bi nga xamné moy sa kiray gu maggi gi adina bi rendi nga ko bo taxé arafa yaangi ci digg maarifa kon bo ziyara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw nga ci pays yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamné ne inna alladina qalu rabbuna la sumastaqamu ñina ñi na wax ne yàlla ñoy seen borom ñu jex seen yàlla ñu jex ci yàlla seen ngëm ak seen maarifa du rafet lu may gannaaw boo njeexee ci yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam koor nag moom it di yàllaay kese jaamu yàlla yëpp yàlla ne dana ko fayee lu mu la koy fayee ay xéwal ci aljanna ak ay dër mais asiyaamu lii wa ana ajji bihi koor maa ko moom te maa koy fayal sama bopp moo tax li ma ubbee ci sama njëlbeen bàyyi di wax ci xutba weeru kooram ci ne yàlla dafa def weeru koor muy marbaxan lil aabidin weeru tonow la pour jaamukat yàlla yi pour wéru promotion la waye wa habiban ila qulub al arifin yàlla fa def su fi yàlla ñi bëgg yàlla te xam ko dañoo bëgg koor sha allah ndax yàlla koor dafa jégué yàlla ma sha allah koor dafa lay dugal dans la proximité des anges ndax ñom duñ lek duñ nan tudd yàlla moy sen lek moy sen nan yow waxtu wi ngay or yaa ngi mel ni loolu dafa lay yéege ci pays yàlla bi motax bayne bàyyi ne wa man daqa taamal dikri wa sawmi faniyan faqad daqa taamal mustafayni wa utxifa ku mos caf nga tudd yàlla ak caf nga koor yow jot nga le noyau de jot nga dëgg-dëgg tudd yàlla ak euh, jot nga dëgg-dëgg ñaar yi yàlla tànn mhm. te yàlla may na la may may na may na la lu lu rëy a rëy mhm. weeru koor mu fonk ko lool mhm. di ko dund rek alquran ak jàngale xadis boo demee Medina fi mu nekk nii ngon si Mawlaa al Xalifa Cheikh Mahamadul Mahi ma ngay firi alquran ni ko bàyyam doon def euh, bu ñu julee tisbaar imaamul akbar Cheikh Ahmad Tidiane Cissé ma ngay jàngal saxiil Buxaari di jàngalee buntu koor di di di jàngal di ko bàyyi daan defee macha allah loolu bàyyi ma nga ko tàmbali bàyyi ma nga commencé firal Quran danañ ci ñëw ci kanam 1925 bàyyiwu ko ba ca fin année année 60 jàngale xadis naka noonu 73 sax faju ji Paris hôpital américain Paris bi mu ñibbisee gis naa lettre bu Mawlaay Sidi Ali Cissé bind kenn ci magi Gaana yi muy Baaba Makaranta Kabirul Kubara yi fii Gaana ne ko sëriñ bi ñibbisi na tane ba bi ngi jàngale saxiil Buxaari ci ci ci biir jumaa ji. loolu 73 la. loolu 73 la 75 mu mu dem. mu dem waaw. waaye waaye jàngale Cheikh Ibrahim. radiyallahu comme jàngale sufiyanke ak ñooñu yàlla. Mhm. seen jaamu yàlla yi utuñ ci salaire. yàlla moo ko digle ñu topp ndigalam ñoom ngërmaane yàlla la ñu ut. Mhm. waaye utuñ salaire bokkuñu ñun nga xam ne. dëgg-dëgg li sama benn xarit doon wax na daal bu dee euh, am na dixième étage man man rez-de-chaussée sax baax na naa dugg rek. man buñ ma doon rek. sama benn cousin moo ko doon wax. waaye ñoom sàkkuñ aljanna don donte aljanna baax na ñoom ngërmaane yàlla la ñu sàkk te ñun ngërmaane yàlla moo ëpp bàyyi daf koy wax ci diiwaanam bu ñuy wax nurul xaq fi madxi ladi jaa bi sidq mu bind ko 1959 ama bushra al qawmi mi ngi wax ne bi xajji wa sawmi lam asiq fal wasaiqu bi fadlin karimin yowma tubla al xaqaiqu usalli usalli imtisaalan adkuru llaha taaliyan fama fama sama cheyun in tabassara zaiqu mu ne damay aj damay oor hmm. damay julli di jàng alquran waaye li ma ci bëgg rek mooy ngëneeni yàlla ak ngërmaaneem keroog bañ toogee bés penc ne dañuy weer jëfi jaam ak li ñu doon nëbb yëpp ma am ngërmaane yàlla macha allah ndax ngërmaane yàlla moo ëpp fuuf aljaan aljaan li muy foor foor jaami yàlla la hmm. waaye yàlla gërëm la nga bokk ci ñi nga xam ne lilladiina ahsanul husnaa wa ziyaada hmm. ñi nga xam ne daf leen a jox aljaan ba pare dolli leen mhm. te dolli goog du dara lu may mu dindi kiiraayam ñu janoog moom loolu moo dàq aljanna moom la bàyyi di junj ci biir wayam yi loo tax koori sufiyanke yi bokkut ak kooru nit ñu ordinaire yi ndax Cerno Xasan Dem wax na ko ne suumu li ruyati yi waftiru li ruyati yi mhm. xadis boobu daf koy firi ci waxam mhm. yeneen bi dafa ne bu ngeen gisee weer bi bu weeri feeñee or leen bu shawal teroo dog leen mu ne boo demee ba gisoo dara lu may yàlla yaa ngi ci koor gu mag boo demee nag ba gis luy niroog leneen te leneen amut. Hmm. xamal na yow dog nga. macha allah loolu mooy gis ni gis-gisi sufiyanke yi ci ci ci ci biir weeru koor. macha allah. mu de fukki ni bànd guñ dóor woowu jàngana la gëm leen si di baaraama xam-xam bu àndut xam yàlla loolu xërëm la borom dafay jaamu wayloon gaañi baara amaa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 chef de gare àddina jey moom merut moom seetut ku mer boo meree mu la way maa di sëb géel di la way jomb naa xaway ku la moy ni mag nga kenn du la bañ gerte yaa ngi doon bëgg a wow kursu baa ngi kenn du fi raw yow nga ñaay li yow lañu fay ahlu ceexu jébbalu leen roy ci xollu jaam bi ñu doy jaamu leen taxat tana muñ xam ne àdduna du fi way bokkeloo ci hëddina bul di rey yo du la jey yaa yaay ki ñu may bur bu mag bi mooy ki la fal faydu baa ngi ñas ku la xam xam ne yaa di faydu bi tey sol nga soose sol tukkulóor sol nga naari faasi firaw géew na lambu jiyaa tey ku am sambar bu ko jey topp naan ko kenn manula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 kuy natteet moo lay xettal sëñ Ousmane Ndiaye texe dox ba gaaw na coyaa jaban Cheikhou Faye Omar Touré ti woyooyu ñoom mbóot lañ Omar dégga Qur'aan loolu mbóot kenn du ko wax kaashifa uññi mbóot ya kuy werante jàngu ko yow maqaamaa moom bu tuxu woon subuloo feeñal góor ga tafsiram arab olofam bum ci doon wedem loola te nga jëf yow ngir bëgg a baay seytaane ganaar yi raw nañ hawsa yaak dagum mbaaya buñ bëggee mu wér doy na géej Madina ak xeeb ko xeebu suufi yéen jaamu bay doy na kuy bëggir boxanteel waay jëmi Cheikh Tidiane yónneen barhamay kenn suur na bëgga dee ci sopp ma waral ma jóg di la way Sayyidil Arifina ya Rabbi bara malabir Barakallah Man bawlan wari modom Sidi Baramba Masya Allah am nañu mbégte am nañu mbégte sa Boucar yal na yàlla fay la yal na xam-xam bi ñu ngi door a door waaye xol yëpp yëpp yëpp yëpp seet naa laaj Pape eh, xam naa ma ñu Assane wala ya ma ñëwaat eh, eh, ci yow rek waaw dama bëggoon xool fan la xëdd bi toll waaw waaw waaw ñu woon ci weeru koor weeru koor ak baay ak muta weeru tabe la woon weeru tabe la woon bàyyi daf ci bëri lu mu daan maye ndax moom bàyyi ibnu abbas dafa nettal ne yenent bi moo gënoon a tabe sallallahu alayhi wa sallam ngelaw luy riddi ngelaw lu riddi waaye daf daan gën a tabe ci weeru koor bu ko jibril daan ñëwal di nafar ak moom alquran daf daan révisé alquran jot daf daan révisé ak moom alquran weeru koor bu jot weeru koor gi mujj nag mu révisé ko moom ñaari yoon gis ne Cheikh Ibrahima moom it daf daan maye rek benn tubaab bu ki bind l'islam noir muy Vincent Monteil mu ne bàyyi couloir la boo xam ne dafa mel ni xaalis dafay romb di dem rek allahu akbar xaalis du bari bari pour jaam yàlla yi Cheikh ahmed tiani yi yenentoo ko waxoon ne la mu waxoon anfiq bilaalan wala taxsha min zil arshi iqlaalan la mu waxoon bilaal ne mayel te bu ragal jeexal ci borom aras te yow doo jeexal mukk gis naa lettre bu mu bind Seydi Ali Cissé ne ko waxal Baye Omar Kata mi yore sama magasin yi ne ko na mayel lépp anfiq wala taxsha min zil arshi iqlaalan Baye joxe rek Oustaz Barham Diop mi ngi nettali ne biñ ñu jógee Chine wàcc Dakar rek ñu jox ko fi addiya 30 millions ba muy yegg si rek la jël téléphone ah ñëwal jël sa wàll bokk xaalis nag fi de allo ñëwal jël sa wàll bokk balaa toog dafay jeex dara dootu fa des allahu akbar te loolu ci yenentu la ko donnee ndax mi ngi tagg yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wahabta walam taxsha iftiqaaran wa faaqatan fama samaxat nafsun bima anta tasmaxu ne ko fa kam akarin kam min qanaatira maratan wahabta ila al aada wal kullu yafraxu ila fa fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin ila kulli aqsa nnaasi juduka yutraxu ne yow yenentu bi da ngay maye maye koo xam ne ku ragal ñàkk du ko def mukk ragaloo ñàkk ndax xam nga ne yàlla mooy joxe te te te yàlla du jeexal mukk magasin yi du jeex ne ko ñaata ay kento ci or kentaali or moom nga jël di ko maye ñaata gétt ci ay gëlëm nga jël di ko may ñoo xam ne sax bu yàgg ca démb gi rek say noon la woon loolu yow yaa ko def mu ne yenentu kenn mësta maye li yenentu maye amul benn gàdd rek lu may ne may yenentu yegg na fa ka gën a sori ci moom ci waaso sax ceew ci far ceew la gën a tabe rawatina weeru koor Cheikh it daf koo daf daf koo doon ci loolu waaye weeru alquran la wax nañ ne bàyyi ni mu ko mokkalee di ko jàngale noonu la ko daan firee indi naa fi ay lettre yu bëri yoo xam ne du fi xaj am na boo xam ne mi ngi wax ne maa ngi dëgmal firi alquran bu ma kenn dérangé ama benn ittee lu may téere yàlla bi ku am lu mënta xaar soxla bu yittee bu la yittee lool dama ci Seydi Ali si wax ko bu jaree mu bind ma dana ma bind waaye fi ne benn soxla laa am man jàmbu xeebu bii bu toroxlu bu tuuti bi bu réer bi noonu la ooyee boppam ndax nit yàlla yi noonu la ñuy yooxee ci kanam yenentu bi wala ci kanam seen borom man tawaadaa lillaahi rafaahu ku wàcce sa bopp yàlla yëkkati la mu ne man jàmbu xeebu bi ama benn itteelu may firi téere yàlla bi déclaration boobu la def ma ne 1925 ba ci fin année 60 yi bàyyi mi ngi koy fi alquran plus de 40 ans amu ko ci firi ko ci ci ci olof mais firi ko ba firi ko ay yaram en 6 volumes boole ko ak njàngam kaamil mi organisé at mu jot ñu dajé nag alquran zikr la tudd yàlla la jaamu yàlla la da fay ram message la lépp la da fay fajj soxla mu dajé la jaami jaami yàlla yëpp ñu jàng kamil at mu jot ci jamono rek bi muy wax ak journaliste bi Abdoul Karim journaliste ben journal bu nek Arabie Saoudite Al Bilad moko ko interviewé woon bàyyi na ci jëflante ak alquran jàng kamil yi def Medina at mu jot te ba légui ñi ngi koy def mu ne at moomu plus de 2000 kamil lañ jàng mais at mi passé jàng nañ plus de 50000 kamil nga gis rek évolution bi te man gis naa maqsad ba maanaam ñaan gi imaam Cheikh Ali Tidiane Ali Cissé daan jàng jëlee ko ci baayam jëlee ko ci baayam soxla bi li ñuy teewal ci soxla bu ñu ubbi kaamil yi mooy bokk na ca yàlla ngay jox évolution Sénégal économique et matériel te nga dimbale wa an tuxawila xaala Sénégal ila ahsanil xaal fi dunia a diin yàlla nga yóbbu Sénégal ci évolution boo xam ne ci mbiri diine ak ci mbiri dunia dafay yokk kon Sénégal dafa mës di nekk itteem loolu yokku na ndax doomam Cheikh Mouhamad Abdoul Malik créé na lu ñu prix Cheikh Ibrahim Niass pour la mémorisation la récitation du Saint Coran at mu jot ci bés 27e jour ci weeru koor bési le Coran. bi dana dajale les meilleurs candidats qui gagné euh, ñu jox ko firi Coran, bi Cheikh Ibrahim def ci arabe muy six volumes tegal ko ca 10 millions ka ca topp moom it ay prix yu dul jeex ka ca topp ka ca toppaat te ñi génne ci prix bi rek ka ca jiitu daaw ki gagné prix national bi fii Sénégal ko organisé. Mm-hmm. ci prix boobu la jógee muy prix Cheikh Ibrahim bi Cheikh Abdou Malik organisé muy muy Cheikh Mahi mu demaat Mali ci prix boo xam ne fondation Mohamed VI moo ko organisé 34 pays bokk ca mu jël paie ki njëkk a nekk gagné prix bi bi bi euh, euh, organisation bi organisé comité de mémorisation bu Cheikh Abdou Malik bi muy Cheikh Moustapha Niang compétition internationale bi amoon Iran mu dem fa moo fa jël deuxième kon dëgg-dëgg la benn wàll yu benn nit yàlla waxoon Imam neko fek ñi ngi wattu alquran ci sa pays membre rek xamal la fa yàlla mayoon jógewu fa te ba legi alquran ji ma ngay yok lu dafay baax bu ñu teewee fii nekk ci wéru koor muy wéru woo xamni ci la yàlla wasal alquran ñu fatali ko boo bolé na ci jotay yi fay am nag ci bir wéru koor bi bokk na ci bisilatul qadr bi nga xam ne suñu jaay Cheikh mamadou hadi Haadi fa daan def bés bo xamné jàng kamil ñu waxtane waxtan ci diine kilifa yëpp teew fa doomam xalifaam Cheikh ibrahim do Cheikh mamadou hadi ba legi mi ngi koy organiser Safa ak Marwa nak mom wax ngeen ko léegi ndax seen bés la di suñu bés ñun ñëpp muy mbootaay mu am solo bam commencé ba léegi yóbbu na màkk lu ëpp 167 personnes boo bokkut ak li muy def ci mbiri diine ndax diine du rek julli ak war ak naa fi la waaye fexe ba mindee fi yàlla yi nga taxaw ci seen soxla ku taxaw ci sa soxla mbokk jullit yàlla taxaw ci sa soxla te ajkat dafa bokk ci mbiri bàyyi ndax sukkeerig moo ne ko woon gis naa yàlla dana la may ay aj yoo xam ne ci la soxla yi di fajoo te ba bàyyi ñëwee aj dafa yomb yàlla may ndox mu aj 17 fois li mu jaabante diggante Makka ak Medina bu ñu ko boolee muy 21 fois te bu ci nekk rek dama ak demi ñeneen bokkut ndax nee na muraadu xajijil baaxiraat yi itte yi ñi aj di dugg ci bateau yeeg avion yi di dem ak sama ité bokkut ñoom luñ bëgg jinaanu wa xuurun ay aljanna lañ bëgg ak ay xuurul ayn ak ay xéewal man nak sama soxla moy wàcc tek sama beut fo xamne ne yonentu mës na faa sallallahu alayhi wa tek sama beut fo xamne ne yonentu mës na faa sallallahu bay ah deug dëgg aj yomb na ci mom ci ay doom ak ay seutam ma ni Cheikh Mamoun rek amna ben at 313 personnes la yobol noonu mak la yobol noonu mak ci ben at bokku tak li imam di yóbbu ni Cheikh mohammed Mahi Cissé di yóbbu ni taalibe yi di yobbu deug deug loolu buñ tewé ci jotay bi dañ ko sante yàlla ndax waxtane bay sante yàlla ci mom bay mo moo ne mi ngi ñaan yàlla ne an ya um mahdi mhm. yi ma duna sax yi mu ne yàlla yàlla nga omat mi def yi ñu euh, topp samay jeego ci njub mi ma topp te tañ gërëm sama tañ sant sama sama dox sama jéego mhm. ñu sant doxam mooy ne moom de moom la mu waxoon ci xasida ba mu bindoon te ne bu ma génnee àdduna day danañ wax ne ndeysaan ku bëggoon lu baax la dafa gàttañ lu rek dafa gàttañ lu rek de waaye ku bëggoon lu baax la waaye dëgg dëgg gàttañ lu wut ndax lim dund mhm. lim def ci dundam xajut ci téeméeri dund xajut ci téeméeri dund ñun ñuy gëstu ay jeexitalam rek depuis presque vingt ans dix pour cent ci jeexitalam sax mënuñu ko exploité wallaahi xalifa bi jox na ma caabi néegam ma dem di xool ay archive am ne ma lu ci taarix soxla na nga ko génne gis naa ne dix pour cent ci li bàyyi bàyyi ci luy jëriñ xam-xam ak ci jëflanteem ak doomu aadama yi sax exploité wuñ ko ba ci ay lettres yu jógee États-Unis yu jógee Trinidad and Tobago yu jógee fu nekk yu jógee ba ba Ouzbékistan ñuy ñaan di ko di sàkku pour mu dem fa Trinidad and Tobago mooy Trinité and Tobago nga xam ngeen ko di ko bind lettre naan ko yónnee ñu ilimaan boo xam ne dafa dégg anglais te xam dina ngir mu ñëw jàngal ñu àddina yëpp di wax ak moom ma ne bàyyi booy werante ndax kii mooy borom jamono xoolal rek àddina yëpp a ngi wax ak moom lépp lu baax loxoo mang ca ba ca nit yi diine yi nga xam ne nit yi àdduna yi nga xam ne àdduna leen tax a jóg ñi ngi jëflante moom lettre yi Charles de Gaulle fekk lettre George Pompidou da nga ko fa fekk lettre am bim mu fi fii Gambie war jëm ci conférence bi nga xamné France moko waron def ak mom ak Winston Churchill da nga gis mu toog Cheikh Ibrahim ci ko xamné ya nga ngi juddoo Taïba Niassène yaroo ci digënté lewna ak ko amulo ben comité bu la jitu di la présenté àddina bi deug deug lool moy tawfiq lam wax ne bam wacce Minan ci ajam bu ñëk kenn présenté wuko muy karaw gu ñuul ñu bolé ko ci borom xam-xam yi wara dajé dajeeg buur bi waxtaan ci diine loolu ku gëmul ne tawfiq yàlla la dëgg dëgg doo mën a dégg mais nag ñu diggante ñu ñëw après euh, euh, euh, sa Assane relation digganteeg chef d'état yi nga xam dañu nekk ci biti moom Cheikh al Islam loolu tamit bokk na ci mayam yi waaye bokk na ci it jegle gi ko borom bi subhanahu wa taala jegleel waaye ak tasaare l'islam gi nga xam ne bàyyi tasaare na ko ak dimension intellectuelle bi mu doon doxee loolu tam xam naa dinañ ci ñëw diggante relation ak chef d'état yi Oustaz jërëjëf Oustaz Pape jërëjëf Alaaji Baye Cheikh fa tabarakallahu Cheikh Boucar ñëpp bëgg nañ leen ndax kàddu yi fi jik di ay azkar nga xam ne moom la ñu miin a pays ba tey képp kuy njaboot Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu saahibul firda tijaniya sa xol sedd na waaye képp kuy jullit itam sa xol sedd na Cheikh Abdourahmane Ndaw fi mu ne nii mën a tuutee boppam soxnaam bi nekk macha allah ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel si guddi gi nga xamante ni moom la ñu jagleel ki nga xam ne moo di alxal la solution Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu nga xam ne moom moo waxoon ne wa marratan uxra taraw na ajaban waaw beneen yoon ay jamono ngi ñëw da ngeen di gën a gis yu gën a yéeme rek ci li nga xamante moom la borom bi subhanahu wa defal te am na yu bari yoo ci lim énuméré ko mu nekk loo xamante ni lu kenn mënul na table la ndax lu ñuy gis la bi mujarradi al al al ayn waaye moom itam Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dafa waxoon wax bu am solo wa ida saara xayru naasi surtout waraahu wa in xalla yowman fal masiru baidu hmm. sama xel dem ca aaya ba yàlla waxoon se Ibrahima alayhi salaam wa ibrahima allazi wafa mu mel ni kon mawlaana cheikh ibrahim radiallahu anhu la mu waxante woon ak borom bi déeyante ko ak seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam matal na ko ndax moo waxoon ne fu nabi teg tànkam rek moom dana ko fa teg moom mawlaana cheikh ibrahim radiallahu anhu ñaari question laa lay jox bu njëkk bi mooy juhuduhu wa injazatuhu fi daawa al islamia maanaam yitteem ak li nga xamante ni moom moo di ay effort yi nga xamante ni def na ko ak réalisation yi nga xamante ni am na ko ci li nga xamante moom moo di daawa bi moom mawlaana cheikh ibrahim radiallahu taala anhu beneen bi mooy raxalaatuhu wa tisalaatuhu bil alam li xidmati al islam muy ses voyages

verset 104 في سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير wa بالمعروف وينهون عن wa وأولئك هم المفلحون na am ci yéen bàyyi mu ne bi mu ne na am ci yéen ki nga xamé du ñëpp a du ñëpp am oote ci ñëpp mëna mën jëm ci yàlla deug la am na ay critères am xam-xam ràññee am xam-xam di jëfé xam xam-xam ba jup ci critères yi ñu war a jëm ci yàlla waye waaye na am ci yéen yu mengo lolu seen métier moy oote jëm ci yàlla di déglé lu baax te diko def di tere lu bon te diko ba yàlla mu ne ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñooy texe ñooy prospère Cheikh Ibrahim loolu moo doon métier mooy daaw mu donnee ko ci waajuram toujours interview am yi nga xam ne publié naa ko yëpp ci ñaari ouvrage yi ma indi bu ñu ko laajee foo doonee métier bi mu ne ci son waajur bu góor kañ nga ko tàmbali mu ne bi mu génnee àdduna waajur bu góor boobu muy tàgg ci xasida bi Cheikh Moustapha Sam njëkk jàng naan ridallahi an cheikhi wa asli wa murshidi yàlla yàlla fay sama baay sama sëriñ ki nga xam ne moo ma jubal وقد كان يهدينا الى الدين ناصرا كي قمنا مو نوران جبل كي دينه كي دمبل دينه بغزو وتعليم وحج وهجرة وعاش شكورا وهو قد عاش صابرا ثم بعد قمنا قرينا كي يوني يلا قداينا أه أه جانغالنا مننا سنتنا كوكو موي باي خمنا موكو نامو تي لول موني اريتاج بوب تي بايام لاكو جيلي يلنتو بي موني كو جوت تي كو جوت تي مان دونتي بن فيرسي لا بن ايا الله عليه وسلم نانكو جانغال نينن استاذ القران أنا كو سي نجيل بن بلغوا عني ولو ايه تونت بن ايه نين ماتريزي بن فيرسي خمال لنكو كينن ما شاء الله كي دغ تي يوسف منا غنا جيرنيو يومي خامن ياي واخ داخ انتاندماي دغ دغ دغ يي بوكو يننتو بي نك جانغال ني اودو الى يالا مو نيكو جانغال اترافير موم اودو الى سبيل ربك بالحكمه كو يالا واخ بالحكمه والموعظه الحسنه ماغا اوتي تي سا يونو بوروم عندك ساجس موي خم خم بو جيرني اك وارو رافت loolu li ñu ciy xamee mooy ne kii oote jëm ci yàlla xakim la war a doon dafa war a am méthode boo téyee nit ñi rek tiim leen naan leen safara nga jëm yow moom sa mbir yàqu na dootu baax yàlla moo wax yonent bi qul yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwa alghafur rahim yéen ñi nga xam ne sàggan ngeen caay-caay caay-caay ba gëm ne seen kaa moom désespéré na yàlla dootu leen jégal yow yonent bi wax leen ne man yàlla maay kii jégal bakkaar yëpp ne leen buñ naagu gis nga naagu ne yàlla du la baal moo sànq iblis iblis daf ne à la guerre comme à la guerre comme dootu baax moom naa yàq rek dootuñ ma jéggal naa yàq li ma mën. comme ñaaw na ba pare comme ñaaw na ba pare na ñaaw rek yàlla mu ne bu ñu bokk ci ñooñu. yàlla looloo tax kii woote jëm ci yàlla. Mhm. war a am sagesse. am xam-xam bu jëriñ tey mën a waar nit ñi waar bu rafet te mën a muñ. Mhm. bàyyi am na contrées ay dëkk yoo xam ne ci dëkk biir Sénégal dañuy wax rek Nigéria mais moom àddina yëpp la toj ci biir Sénégal gi la tàmbalee ndax déjà 1937 génnagul Sénégal. gis naa rapport gouverneur Berries muy teewal France ci Mauritanie. muy wax ne Baye ñi ngi compté ay taalibeem ba dugg na ci biir ay Matam ak Fouta te boobu génnagul Sénégal. 1937 gis naa rapport boo xam ne lettre bi ñi ngi ko bind gouverneur Marcel Copé muy gouverneur général du Sénégal teewal fi France gouverneur général de l'AOF. Euh, Edmond Louveau mi nga xam ne mooy directeur cabinet ma nga bind ci kaw un marabout très sérieux il a entre 30 et 40 mille talibés te boobu bàyyi gën a gudd dëkkam bay oo kenn ci àddina bi kon moom oote bi fii la ko tàmbalee am na ay dëkk ceddo yoo xam ne moo ko toj pour wax la rek xikma bi mu am ak sagesse bi mu am ak waar gu rafet gi mu am bi muy tuubal gars yi ci benn dëkk fii ci ci Siin am na benn mag ne ko ah man daal d'accord naa tuub sax waaye sàngara moom du ma ko bàyyi sang si moom sang mënuma koo ba bàyyi na ko ba ah, dugal ci lislaam rek waaye léegi altine ak alxamis moom bul naan altine ak alxamis bul naan fiñ mujj mooy góor gi moo mujj gën a bañ sàngara ñëpp mujj gi xam nga kii bu amutoon bàyyi bu amutoon sagesse kii dana génn ci lislaam te yeneen bi ne nga jubal benn nit imaam Ali la ko waxoon ca xaybar mhm. nga jubal benn nit mu dugg ci lislaam moo gën nga dépensé àddina li ci biiram te nit ñi boo leen muñul yow doo yàlla ba ku yëngatu nga ne safara la jëm yàlla bind nee na moom moo gën a xam te moom mooy jëmmi yërmaande mhm. kon bàyyi dafa am yërmaande googu am sagesse moom nee na mooy yërmande yàlla ci ci jaam yi. radiyallahu anhu noonu la ootee te wax na fële ca 1945 ba mu njëkk a dem Nigéria. boo demee ci tazkiratu man kaanu mooy rexla boobu nga xam ne mu dafa bind wesar jox ko Muxtaarul Xaamid mu bind ci dara la ca des bàyyi yeggal ko ma ngay wax naan fala anaalu raaxatan fi qalbi wa fi lbasitati yuaasa rabbi suma xol du féex fekk ñi ngi mooy yàlla ci kaw suuf suma xol du féex fekk ñi ngi mooy yàlla ci kaw suuf tukkeem boobu تكلم بنيك بمرم بيجانا سن كم سنة مين يقول لنا لكن أنكر إلى تكرادي ما بلغتهم دعوة من هذه دفع مني دي جنت تكرادي تكرادي تي جانا أك أكرا دفع مني من وارك أب مسفينيو نين تي تبدو يزمو جم مغو خبنا يلا رك خم فم تول ما يسات اللي جيم بام فدلو سي تي دوين سرك دفع أنكر من هذه تغيرا أكرا دي سوبيكونا سوبيكونا ndax ñi jaare ci moom dugg dugg dugg ci lislaam ay junnee junnee nañ ci jotaay boo xam ne ne na ixtalafat alsunuhum wala aqdu muttaxidun xaqan li rabbil hamd lang yi samay taalibe yu dialecte yi ñuy wax ute na mais ngëm-ngëm gi benn la mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu commencé di leen lim awalum hawsa wa ahlu jarma kaza da gumbal xayru fihim amma mu lim ci lu ëpp vingt ethnie yoo xam ne dugg nañ ci lislaam ci loxoom ci jamono jooju noonu moo tax mu ne bu taxutoon ak njaboot gi du ma ñibbi. Mhm. ndax moom loolu rek mooy métier am loolu rek moo ko moo ko tax a jóg. tubaab yi dañoo yéemu ci loolu bi bàyyi ñibbisee rek 51 ki leen teewal fii bi des affaires musulmanes à Dakar mi ngi tudd Louis Mangin dafa dem mission wër dem Nigéria dem Ghana dem Côte d'Ivoire dem Dahomey bi mu ñibbisee rapport bi mu def mu ne jullit ñi ma dajeeg ñi ëpp jullit ñi ma dajeeg ku ma ci wax ah yow kan mooy sa kilifa ci diine ñu ne Ibrahim al-Kawlaxi. est-ce que Ibrahim al Kaolaki noonu la ko bindee rapport baa ngi fii archive nationale du Sénégal. boo demee archive euh, rapport numéro 19 bar G da nga fa fekk rapport Louis Mangin muy wax loolu. mu def benn conclusion ne kii daal nañ utiliser ci moom méthode yi ñu utiliser ci ña ko jiitu mooy jéem a maslaa ak moom maslaa bu rafet. koo xam ne buy tukki du la laaj recommandation du la ñaan ndimbal te moom nax nañu ba tasaare l'islam te yëguñ ko moo tax ñi gëstu ci histoire Sénégal Serigne boo tudd ñu daf daan collaborer tubaab bi daf daan nangam. dañoo xamul lu bari rek sëriñ si ñoom rek a fi jàmm te jaa sa jàmmoorloog tubaab yi dëgg demal Paté Badiane demal naw duuru demal ci woro woro Madi yu demeet ba nga dugg ci àll fi ñu tuddee ga ñoomeeg bay dugg ci anglais bi ay sëriñ rek ñoo teewoon jaase ñoom Souleymane Ba rek ñoom Malick Sy bundu ay sëriñ rek ñoo teewoon jaase di tasaare l'islam ak di jàmbaarloog tubaab bi xam nga ne kon duñ ay ragal mhm. mais nag yenent bi moo ne ruse ci xeex la bokk alxarbu xutaa mu ne ruse ci xeex la bokk mag ñi bi ñu demee ba gis ne xee yet du xeex ak maqdoom beneen méthode lañ jël moom la tubaab yi historiens yi tuddee la période de l' accommodation mooy tubaab yi comme dem nañ ba France ne léegi la France est devenue une puissance musulmane lañ maslaa ak sëriñ si bu tabaski jotee wala korité ñu indi xarit tabaski bu ñu inauguré juma ñu dem teew ca ñi ngi maslaa surtout après première guerre bi nga xam ne jullit ñu bëri dee nañ ci ci la tubaab yi tabax grande mosquée de Paris institut islamique ak lépp ñu def ko ci la ci lañ sëriñ si tamit ne nañ changé méthode mooy ne كوني وخ سالم سواري لا نيوخ ني مو نيك تيوريزي دوكترين بوب لا بو نيك تي دار الكوف ولا تي ريو مو خامني كيكوي اتي دو جوليت تا لا ليبرتي دو كولتور غمانا جامو يالا ماينا لا جانغال سا دينه دارا مايو لا تي دارا تريو لا مو مسلا بو رفت موم لا باي الاسلام نانغونا مدارات موي كومبرومي اك مسلا واي نانغوت مداهنا موي كومبروميسيون mu ne julit mën naa politique mais politique am la jëm ci luy yëkkati diine jëmee ko kaw baye mën a dugg ci réew yoo xam ne gaana ku ko jiite woon Kwame Nkrumah mais mais deuxième voyage am la gisante Kwame Nkrumah moom wala Kwame Nkrumah bàyyi mi ngi gisee moom 1952 1952 bu génnee ci kaso ndax boobu Angleterre dañ ko tëjoon ndax parti bi mu créé woon Convention of People's Party euh, CPP mhm. daf doon dox jëm ci indépendance ñu tuumaa leen ay mbir tëj ko kaso mhm. bi mu génnee kaso kenn kii wóolareem di kilifaam ku ñu wax Alaaji Nooga ne ko bàyyi fi mu ñëw seet si bàyyi ba muy seet si bàyyi sax daf na nañ fay làmp koñ ba ndax bu kenn xam ne mi ngi ñëw ndax moom tubaab yaa ngi koy suivre mu toog ak Baye Baye nettali na ko ci reex bi reex la commencé ya mu ne wa jaa anil wasiru wa huwa kurma nasaxtuhu qabila anil kalima wasir kurma ñëw na seet si ma boobu député la digal naa ko déglu na sama digal daf ne Baye dama bëgg a doon président Ghana Baye ne ko ndax boo ko doonee di nga yërëm jullit ñi mu ne danaa leen yërëm Baye ne ko bismillah allahu akbar te nekk na ko mooy mooy premier président Ghana Мой первый приезд на جبلين عمانا بالله خلصي نسيما سرى من ذا العقيق فيخلصي فإن نسيما مثله سيتم لي شفاء سقامي بل يتم تخلصي إلى رحمة الله سراج محمد إلى خير جائن للبرايا مخلصين إلى أحمد الماحي إليه توجهي وسيان عندي مادحي ومنقصي إليك رسول العالم لمين محمدا شفيع الورى في الكل جد مخصص لمن جاء بالعز العظيم وخذ من تولى عن المثلى ولم يتخلص هدى الخلق للنجم القويم وقد شفى سقامه من كل أعمى وأبرص سرى بك ليلا ثم أدناك راقيا إلى حضرة لم تلف موطئ أخصي تجاوزت أفلاك النجوم وقد دنا لك العلم والأسرار خير ممحصي تجاوزت أفلاك النجوم وقد دنا لك العلم والأسرار خير فرحت له من مغيب الشمس أرتدي يخلصني هل غير مخلصي فرحت له من مغيب الشمس أرتدي يخلصني هل غير مخلصي الله لم يتقلصي الله أنني أتيتك هذه فاهدني ترى بصير الله أتيتك هذه فاهدني لا تربصي أسير وبيش شوق المبرح لا أنام فلست إلى العيش رغيد بأحرصي ما شاء الله ما شاء الله Cheikh Boucar ci la ci ñëwaat fekkee danañu wax dara ci bàyyi ak mbëggeelam ci yonent bi sallallahu alayhi xasida bi dafa yéeme trop dafa doy waar xasida bu doy waar la mi ngi ci seerul xal ba ñun traduiroon nañ ko français seerul xal bi saba jabalay naamaana billahi xalisi xasida bu yéeme la waaye mais faaw xasida yi rek ñu koy traduire en français comme ni nga koy defee waaw traduire nañ ci lu bëri ñi nga xam ne jànguñu arab te moo gën a bëri te bëgg bàyyi lool te bëgg xam li bàyyi di wax tamit ñu koy ñu koy def nii baax na ci daf ñu dénk sax commission internationale de l'écriture de l'histoire de la fayda am ci branche boo xam ne li muy def rek mooy traduire waxi bàyyi am nañ ci comité international boo xam ne traduire nañ ko benn livre bàyyi bu ñu jël dañ ko traduire en neuf langues. neuf langues bi ñu njëkk a jël mooy les trois stations de la religion. Mm-hmm. traduire nañ ko ba ci malayalam benn langue la bu ñuy wax Inde euh, fële ci ci ci Inde. Mm-hmm. ay talibé bàyyi fa ñoo ko traduire. langue bi indonésienne bu ñuy wax Bahasa. Mm-hmm. traduire nañ ci livre boobu. traduire nañ ko ci suédois ci anglais ci italien ci espagnol yooyu yëpp partie la ci biir projet histoire générale bi. mais diwaan yi moom man traduire naa français Serul Qalb ak diwaan Nurul Haq ñi ngi commencé manasiku al widaat muy le rituel des passionnés noonu lañu ko bëgg defee dans le cadre de l'histoire générale ba ba yëpp jeex incha allah. waaye yaa ngi doon tudd Kwame Nkrumah. waaw kay. indi naa ay lettres moom moom Kwame Nkrumah moo njëkk a nekk buuru. Euh, Ghana. boobu Ghana ngeen bokk ci Commonwealth. Mhm. mooy réew yi Angleterre nottoon. nottoon seen mbootaay bi donc boobu bam mu tudd tudda tuddatul Gold Coast Gold Coast la tuddoon la côte la côte de l'or Gold Coast wa mo la bàyyi di wax ke annana wa nahnu fi Gold Coast min ahlina li taybatin li Kosi ma ngi Gold Coast wa mi ngi melni ma ngi antu Taïba sen ak Kosi ndax samay talib ak sama njaboot rek ñoo fi ne Gold Coast la tuddoon moy la côte de l'or mu bi ñu amee bi ñu indépendance nak ci la tudd la république de Ghana bàyyi sax ñu ne doon na len tooñ ne leen da nga waron tudde tuddee Rina gii firi koomal ngeen mas ci suuf ngeen toroxal seen bopp ndax yàlla yëkkati leen waaye bu sa muyee tooñ ne gaana am na lu nekk waaye mën nañu ñëw développé dañoo waroon a topp ndigali bàyyi ba ñu tudd gaana ñu tudd giina waaye nag gaana xam naa ne seen làkk am na lu muy firi lu am solo moo tax kurma moomu maa ngi tiim nii lettre mu bind ko bàyyi le novembre 1960 danga xam ni mu gisee ni mu ko sëriñ bu tedd bi te pourtant du ko bind moo ko signé benn lettre ngi nii bu mu signé naa ko da nga gis euh, symbole euh, gouvernement Ghana bi mi ngi ci kaw mu bind ko Baye 1900 1961 yooyu yëpp mi ngi fi bi ñu jotaay mayoon yëpp mën nañu ko détaillé mu naan Baye sa jarbaat professeur Khalid def naa ko muy daanaka ministre conseiller mooy toppatoo réew yi doon wax français yëpp te France na toon leen mooy dox sama digganteeg ñoom. Hmm. benn lettre bu mu bind Baye naan ko dégg naa sa discours ba ca Casablanca kontaan naa ndax développé nga fa les idéaux communs yi nga xam ne maa ngi ko bokk mooy unité africaine ak ñu def ba libéré ba libéré fii maa ngi ko amee bind Baye. mu bind ko nee na taalibeem yëpp nañ si wax wii ci référendum bi Kurma di wax nañ fexe ba Afrique ilif boppam not boppam ndax Baye dafa gëm ne watanuna al aziz suñ notre chère patrie bu ko waxee rek Afrique la ci judd. moom il voyait large mu ne suñ dëkk dëkk yu dëkk dëkk yu ndaw yi mënuñoo développé ak ñoom. il faut ñu am ci les grands ensembles réew yi ñu raw ci àddina bi Europe ba guerre ba jeexee lañ gis ne fu ñu jaar ñu booloo Amérique bañ boolooyee ca kenn xamut kañ la. dafa gis ne booloo mooy doole moo tax effort yi mu def pour fédération du Mali taxaw gis naa maa ngi amee fii lettre am mois de safar 1378 mois d'août 1958 mu yónni doomam alxaaji Abdoulaye Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop professeur Habib Niang pour ñu dem dajeeg président Modibo Keïta bu ñu paree ñu dem dajeeg le premier premier ministre du Nigéria muy Aboubacar Tafawa Balewa te liñ doon wax yëpp mooy lu ñuy def ba Afrique booloo nekk benn tubaab yi bañ ñoon not nañ dem na ko doon ñaanee ci ñaanam bi 1939 waaye buñ fi bàyyi ku leen yées nañ fa dem waaye buñ fi bàyyi dañ dem mais buñ fi bàyyi tubaab et tubaab yi ñu yoo xam ne seen doxalin dañuy continuer xam nga ca njëlbeen la doon wax na yaa rabbi habli zamanan la ara alaman fihi alaman lil kufri wa wa tuli kulla baydaai tubiduhum wa tuxalli duurahum talalan fi surati il waxaa yaa rab yaa rab ashiyaa yi yow yàlla yàlla nga ma may jamono joo xam ne du ma gisati drapeau colonisateur muy flotter fii ci Sénégal nañ dem nag dem gu gaaw nga gental seen kër yi yow mi nga xam ne yow yàlla yaa moom yaa moom mbir yi kon ma ñii du julit mais bàyyi bi mu gisee ne mu ne gis na mu bëgg réewam bëgg Afrique bëgg nit ku ñuul bëgg fi mu bokk daf ne naa ko naa ko jàppale pour war la rek ne lislaam diine ubbeeku la dialogue bu rafet ci diine lañ ko fekk loolu ci yi dimbale bàyyi pour mu xëcc nit ñi bañ dugg ci lislaam bi Égypte dem na fa teew na fa am journaliste boo xam ne journaliste jigéen la ñëw muuruwut interviewé ko ba interview interview bi jeex mu ne damaa bëgg nga jox ma wéru tiyaan waaye ne ko tàllalal mu tàllal mu mu jox ko wéru tiyaan mu ne ko man damaa laaj yu bëri nanguñ maa jox ñu may solo bàyyi ne ko wirdu bi bu dee wér na ci yow ni ngay soloo da nga ko bàyyi xam nga loolu mooy am méthode ak sagesse nit ku du ñëw rek nga ne ko yow safara nga jëm yow da ngaa dëng yow nangam loolu loolu du jàngale yonent bi te du jàngale du jàngale Maulana du jàngale Maulana Cheikh Ibrahima. gaana googu rek 1961 euh, bi Kurmadi Kwame Kurmadi inauguré Kwame Nkrumah Ideological Institute institut bi mu defoon pour di former jeunesse africaine bi nga xam ne ñoo war a porter idéaux yi liberté yi xeex la néocolonialisme li bàyyi tuddee nga gis nim télé concept yi nga xam ne concept yu bees lañ ni ko télé maîtriser xam nga Kurmel bindoon na livre tuddee ko néocolonialisme is the last stage of impérialisme mu ne tubaab yi dem nañ mais ñi ngi continuer di ñu not ba léegi ci yeneen moyen nañ jéem a feex loolu fexe xeex loolu mu jeex moo tax mu doon jéem a former benn relève boo xam ne danañ mën a xeex loolu bàyyi ba mu fa teewee ma nga fa teew ak Brezhnev muy euh, président URSS Union soviétique mu teew fa ak Joseph Tito bi nga xam ne moo doon président ex Yougoslavie Brejnev ne bàyyi naka nga gisee un un monde multipolaire multiconfessionnel nit ñi bokkuñ waaso bokkuñ pas-pas ñu war a bokk àddina bi dund noo ko gisee bàyyi ne ko dama gis àddina bi comme un village global professeur Ibrahima Mahmoud Diop mu ne le concept de village de village global ci bàyyi la ko njëkk déggee tubaab yaa ngi wax globalisation waaye booba waxaguñ ko mu ne ñoo bokk penc mi muy l' espace public war nañoo fexe ba ñun ñëpp ñu épanouir foofu le bien ñu veillé ci. suñu privé nak mune moy suñu confession suñu diine suñu pas-pas ak suñuy waasu jullit bu goudé jullit bu paree ca foofa ma nga delu ci farate ak naafile ci mandu nak ku dul mo gëna xam kërëm mune bi waxé lol Brejnev président Union soviétique di di siggi làggam communisme bobu dafa jug taxaw accolade bàyyi fo goot fon ko ci gauche ak droite né ko at least we are brothers during the day lu bon bon nak ñun ndekete ñoo bokku ci bës bi ñoo bokku nday ak bàyyi xam nga loolu mooy fraternité humaine njabot gi mindee fi njabot yalla lañ mbindeef yëpp bàyyi nag boole ci bind bind loolu daf ko bind bi mu ko waxee ba pare professeur Habib daf ne ko lii da nga ko war a bind ndax lii c'est un cours magistral mu bind ko ñi ngi amee ñi ngi amee mbind mi macha allah buñ duggee ci daawaam bi mën nañoo dem tukki mais Baye daal mooy premier diplomate daal diplomatie bi mu doon doxee moom Baye ak ci adduna bi loolu kenn xamul lu mu doon moom si alislaam wallaahi dëgg la mën nañu ko continuer ba Chine ba Chine tukki Chine am ma 1963 ba mu fay dem yaakaaruma ne am na man gaw ma ne officier sénégalais jamono nañ fa jamono jooju parce que 60 la ñu am indépendance China Muslim Association yone ko trois billets avion Air France mom oustad ibrahim Mahmoud Diop ak Souleymane kan li ma lay wax ni rapport français yi nek ci centre des archives diplomatiques de Nantes fala ko jele waaw nga xamne baye lum la wax rek deug la amna sax ci may gu ko yàlla may lo xamne waxuko ndax RS ndax bari kersa. ndax biko Imam Hassan di wax ne ko dembu dama gentu gis yenen tu fële ci Paris 74 mu ko man mi dembu dafa ma feñu jahratan ci lu na nelaw physiquement taxaw sama kanam dama len ko don neub ديال البيت بي يوكل مكو سي سبق قصيده بي ثقافه ابراهيم بي خمنا موت سير القلب رايت رسول الله جهرا ويقظه ببارز هل ذاك المحل محله جسنا ينت صلى الله عليه وسلم ان بلان جور مو تاخو سما كرم ندخ باري بس بو براب لا بور بو نورا غيسه ينت بي ندخ ني باري دوي وار موني موني باري لاكو غيسه باري لاكو غيسه موم ياغ نكو غيس نيو دك نانا مسوكو ييرو وايي غيس كو كي غيس غيس بو ييمه تي باري ان بلان جور موني ندخ باري barab bu wara a gisee yonent bi ndax waxon na ci way wane darul daarul faasiqiina kusaala Paris nag bëri nañu sagan lol te gën topp وكولك تدوقات أبنت رحالا تمسك بأزيار نبي مطابعا مذاهبه فالمقدسات فلالا باين فتغنيك عن دستور كرز وقالد وتغنيك عن جونين يروم حالا فما نبليون أو لنين ومركز بموحا إليهم قل كان كخبالا كيف مجرد رك دفا يمي موم مون يالا داف ما ناتو سيو ا يالا داف ما ناتو سيو واي يالا نما خير رك لوكو نيه يالا داف ما ناتو سيو نفس الملوك حاله المسكين لكنني اشكو لمن يشكيني بكني بعض لا يوري واي كوما غيس تك مبور loolu daf ko doon ci yenentu yàlla muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam tukki tukki bii ma nga jëm ba ci 1963 muy tukki mu yéeme wax naa ne euh, rapport yi tubaab yi maa ngi ko amee fii ba mu jeex huit pages bàyyi ba mu toogee premier ministre Chine bu bu Chine ñu koy wax Chouen te tee alamante ba ñu ko fa jox te amut sukkar sax mi ngi ci rapport bi loolu moom mooy wane ne bàyyi bi mu départ Dakar yow fii cinq heures du matin ba na mu yegg aéroport Orly ci Paris tubaab yaa ngi ko toog dem Paris ambassadeur ya ko fa fekk yëpp ci kër l' ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal Jim Momar Gueye yëpp ñoo ngi ko fa tudd. ajjuma jëm jiite te mooy ajjuma jëm jiite ci Europe ci centre culturel musulman ca Bruxelles tubaab yi ñoo ngi ko bind. ba mu paree dem Égypte dajeeg le doyen de l'université dajeeg les membres du conseil supérieur islamique nga xam ne moom bàyyi membre la fa. un étranger nekk membre ci comité boo xam ne mooy doxal diine ca réew ma Jamal fekk tukki la bi muy dëpp la dajeeg moom Gamal Abdel Nasser di président Égypte. continuer dem London ci talibem ba Abdul Malik mi nga xamne talibem la di gorom li Abdul Malik al qarmi qad ji'tu mawilan fa ma London abghi fa ba khayala ñëw naa kër Abdul Malik dig guddi waye nak London London taxumaa jug de London mom illusion la ko jappé amul man ci yenentu bi laa jëm ci yenentu bi laa jëm masiri ilal mawla wa jalla jalala ci yenentu bi laay jaar jëm ci yàlla mu continuer dem Liban euh nga xamne mo do secrétariat congrès islamique mondial nga xamne Baye moy vice président ba depuis le congrès de 1962 jàll dem Hong Kong L'association association musulmane chinoise moko terre photo bi euh, yakarna naa seen régie bi sax am nañ ko bàyyi ci buntu avion bi taxaw oustad ibrahim Mahmoud Diop ak Souleymane Kane comité d'accueil bi ñëw jox ko fleur ma ngi ko bokk téye ko nga gis ndeysaan ni moderne ak ni civilisé jugee fofu jël train bu ndaw mu yóbbu ko Canton Canton mu jëlé fa avion dem Pékin euh, diggante train bi mu jël mang fa fekk Edgar Faure ak entourage ak soxnam Edgar Faure président du conseil France lone ci année 1950 yi man xam naa ne boo motu ñu doon suivre Baye sax ñu nga woon ca jotaay boobu parce que thé à la menthe bu mu naan ci visite officielle sax ñu ngi ko bind ci rapport ba lépp lu fa Baye def ñu ngi ko fa ñu ngi ko fa bind. ba mu demee Pékin euh, toog ak premier ministre ba ñu ne ko dañ lay jox avion mu dem Shanghai nga seeti président Mao Zedong muy président Chine nekkoon ponkalam communiste communiste bàyyi na déedéet baax na premier ministre baax na ndax moom dafa mel ni l'islam xaw na koo neex mas naa lire interview muy tudd muy wax muy wax muy wax ci l'islam te li ma toog ak moom yëpp li may laaj mooy Sénégal jullit ñi ndax am nañ solo ban ñaata ban nombre lañ nangam ak nangam Chine ñu teeru ko fa ñu dem ca musée ba visité ko dem ca Sénat ba ndax Burhanuddin Chahidi yi mi nga xam ne membre la ci ligue islamique mondiale nekk xarit yi bàyyi nekk soppeem moo ko dalal foofu foofu ay ambassadeur rek autorité yu nekk gis nañ ko fa mu jugee foofu dem Karachi moom la Cheikh Moustapha Diang rek bi pekkee na min kantoona bi sini naa iyan bi sini naa iyan wa kaw daxu tatawaqat abanta rihaala maa ngi jugee euh, Canton jël avion jëm Pékin Kaolack nag mi ngi mel ni daf may woo naan ah bi yaa ngi sori de wax dëgg yàlla Kaolack moom sori na Pékin trop mu wàcc foofa euh, yëkkati fa dine ne tukkee mi yenentu bi yuwaali lekkal asfaara wa huwa ataala sama tukki yi yool naa la ko yaa ko moom sa addiye la ndax yow laay liggéeyal te tukki yi sori na tukki yi yenentoo ko moom ndax fu mu dajee ca diine lay waxtaan julli juma foofu ca ca ca Chine waare fa waxtaan fa ci diine jugee fa dem Karachi ca Pakistan xaritam baa ngi fa Inaamullahi Khan membre la ci ligue islamique mondiale membre la ci mu'tamarul alami islami ak ci rabitatul alami islami journal am ba mu am mu tudd Muslim News novembre 1963 sax spécial ba ci bàyyi bàyyi la ko def liggéeyam ci l'islam tasaare gum tasaare l'islam ci Afrique xeex gum xeex réer ak yëkkati gum yëkkati dine ci biir nit ñu weex ak nit ñu ñuul moom lay bàyyi di wax naan li markaz inaamil ilaahi tashawuqi waqad shaada majdan is ataaxa مجالا موي موي موي mooy كراسيما يا قلفت أهل مودتي هم نصر دينا نبي فعالا قد اعتصموا بالحبل حبل محمد كبارا وأطفالا نسا ورجالا باين علوت البحار ذاكرات وإنني علوت القرى والموت نبل جبالا أرو مريد الباري لنصرة دينه وأبرز للجديد جديد مثالا سيرين خمنا خمنا ادي تنك دو توكي تنك تنك دو توكي بي باسكو واو ماغي نيو دولي ماغي ماغات مي ماغي توكي تي دوماكو جامبات ناخ داما بغا ديمبالي دين جو خمنا تسارونا تي جاسي تساريو كو ناخ يننت بي مستخيخ دنجكو سونغ نكو دوكو في واخه ليجيتيم ديفانس ناك كونا خمنا سي ان دورا ناتوريل يعيفنا علي شاك لأن النبي الهاشمي دار ما غدا بلا سد عنوانا ورد دلالا صلى الله عليه وسلم لما هو الباسيفيزم ديال الاسلام غران لوسون دو توليرانس تلولو يومي بروم سيرا xam nga ne fatx makka ta ci biir weeru koor dama julit wata tayal ndax weeru koor suñu victoire yi gën a mag badr le 17 20 ramadan yéen salaay salaam yàlla jox ko 10 000 hommes yoo xam ne mënoon naa faagaagal ñi ko xeex génne ko exilé ko boycotté ko ba soxnaam génn ci àdduna ak bàyyi taxam mais defu ko bàyyi mu ne dafa am kersa bi mu amee victoire seen kaw ba dafa tëdd ci kaw nga wari fas bi ñu ne ko waaw loolu ñuy def nag noonam yi mu ne lu baax rek mu ne leen lu ngeen foog ne moom laa leen def ñu ne ko lu baax doom ju baax jabaat ju baax yow kay lu baax rek nga ñuy def doo ñu faagaagal mukk bàyyi mu ne waxul leen baal naa leen ndax bu leen waxee baal naa leen ñu fàttali ko tooñ ñu ko doon tooñ daf na leen dem leen kenn du leen def dara la Yuusufa waxoon borom taar ba lay wax لا تثريب عليكم اليوم كان دولن بلا متاي كوكو مو ينتو على محمد كون ميساج توليرانس ميساج جوست ميليان موي امو باني اوبل تي دارا غيس نغا بن لا صاح توسبار نينتي راكا لا نغا جوروم نيار لاي ديف ناخ داما باخ بو بوبا يو داغا ген توب ديف نغا لو خامني ياك نغا فراتا غي باخ صاح بو جي اوبل لينن لاي دو جوست ميليان باي موني موي ملوكان ينتو على محمد صلى الله عليه وسلم موي نيك تي ديغي بي موي ميدل وي سلام على خليل البريه من بسط مواليد دين الحق في شكله الوسط لا باي وقت نور الحق yonent bi yàlla jàmm nekk ci moom moom mi nga xam ne taabali diine moo ko moo ko dressé te nag bindam moo doon le juste milieu mooy nga digg doomu nekk ci digg bi bu ëppal am nañu mbégte hmm. Cheikh Boucar ah, yaakaar naa uh-huh. <laughs> Alaj Pap yi bég nañu uh-huh. ñi amul xam bég nañu uh-huh. mi ñëpp bég nañu sunu cofeel ci bàyyi gën naa dolli ko Alaj kii nu am Alaj Pap euh, tey macha allah réew mi sagu na waaw réew mi képp foo dem tudd ko war ngaa tiitaru moom Cheikh al Islam. Cheikh Boucar xam naa dañuy dem ci alaaj Pape Cheikh xam naa ci kanam ñu del siwaat nag euh, faaw nga indil ñu xaqiqatul faydatu tijaniya euh, lan lan la lan mooy loolu lan mooy loolu hmm. ak woote bi ko Cheikh al Islam woote moom kay su ma su ma bañee jël temps bi mun naa mun nañu enchaîner bismillah bismillah waaw mun nañu enchaîner il faut ñëwaat ci waaw waaw bisimilah. ok d' accord kon euh, ñu xool ñu xoolaat sukkaru koor yi <laughs> ndax waxtaan bi. Mm-hmm. Euh, sukkaru koor yi itam ci la ci la bokk waxtaan bi dafa neex ba nga est tellement passionnant ba doo ko bëgg a dagg sax pour euh, dugal leneen mais en même temps bëri ngeen ci di woote sànq ba tey Fati yaa ngi apprécier yaa yaa ngi déglu waxtaan bi. maa ngi déglu <laughs> vraiment tey tey tey tey concentré bu baax Dieng. waaw waxtaan bi am na solo. Mhm. am na solo trop. macha allah waaw ñu ngi déglu bu baax a baax. macha allah mu ngoog donc bu amee téléspectateur léegi nii ñu jël ko euh, très rapidement jox ko euh, euh, sukkaru koor ci 88 628 22 22 88 628 04 05 et puis Mamadou Ndiaye jeunesse fayda bi ñu bëri ngi réagir. Euh, ci compte yi nga xamé ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi parce que daf ci bëri ay jeunes intellectuels euh, qui sont très présents ci digital bi n'est-ce pas ils sont très présents vraiment ci digital bi depuis biñu tambalé ba légui machallah comme niko internet yi waxé ñu ci bëri dañ naan dafa melni dañu nek nekk cours magistral di déglu bu baax kilifa gi euh, cheikh bi lim doon waxtaan ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass mais surtout aussi commentaires yi gis nañ message yi ñepp doon tax bàyyi xel bu baaxa baaxa baax a baax waxtaan bu am solo bi Euh, mais tamit euh, faydu bi am nañu présence ñoom tamit ndaxte gis nga ni léegi fi jamono toll xam naa ñu euh, mbinduk Maulana Cheikhul Ibrahima Niass dañ koy partagé fu ne ci moom rawatina li mu fi jamono toll tey moom bu yàgg la ko gisoon. Mhm. sànq yi ngi dégg ci waxtaanam fi mu tolloon ci patriotisme mais surtout aussi fi mu doon dimension bi mu doon waxee ci mbirum diplomatie. ak tamit ci mbirum euh, jokkalante ci réew yi ak lii foofu jamono jooju lañu toll nii te gis naa ni euh, loolu moo fi ne ni ndaw ñi ñu ngi ciy gën a jóg taxaw ci bu baax a baax te am na solo élage euh, digital bi moom desul ginnaaw te gis naa ni fayda bi am nañ ci d'ailleurs li ñuy préparé fële ca CICES ci weeru juin bi la nekk na lu am solo loo xamante ni déjà gis nañ ni xam naa dinañ ci ñëwaat gën ko partagé mais surtout aussi gën a joxe adresse yeeg site internet bi élage

22 22 88 628 20 40 numéro bi itam bu baax la bu ngeen ci wootee jot ñu léegi nii ñu joxewaat ay suukaru koor laata ñuy àggali waxtaan bi allo allo allo. kooku. waaw man la Babacar Sam. yow la kan. man la Babacar Sam. Pape Ousmane Sam. waaw Yara. ah Babacar Babacar naka. dëkk ma libéré la fu xëdd bi hein? a préparé xëdd. de il est quatre heures du matin. tuuti Les dégg ci wax bi quoi. d'accord léegi ma jox la suukaru corps cent mille. allo. ma jox la sa cent mille. ah yaay déplacé yaay déplacé wu ñu mën a dégg euh, ñu mën a déggante uh-huh. plutôt da ngay wu tuuti comme ça ñu mën a ñu mën a déggante Babacar Babacar euh. d'accord suukaru Babacar voilà yaa ngi dégg léegi waaw maa ngi dégg très bien ma ni yéen a ngi wàcc xëdd bi jóg wàcc jot na de il est quatre heures du matin

Euh, ñu enchaîner en même temps ci euh, dernière partie bi euh, Oustaz Pape Anne ci waxtan wi ñi tambali depuis cinq livre yi nag ma fateli bokk yi ne même bu émission bi jéxé di ngén ci mën barkélu euh, Ahmed Boucar Oumar nia moko ko bind def na li Mamadou Ndiaye tuddee cours magistral mais dafa gatt bay nak le ken xamul moy lan ndax mm-hmm. lu émission bi gudd gudd mën nañ ko jéxal te duñu matalé Euh, euh, dundam ak œuvre am ñu euh, conseiller leen livre bi homme monde ou homme du monde ak beneen bi nga xamante ni mooy mooy mooy mooy vol 1 ci yi nga bind ci ay livre mm. defe naa bëri na am na nag ñuy laajte fu ñu ko mënee am. Mm. ah waaw fii ci Dakar am na ci nekk fii Harmattan. Mm-hmm. sinon am na ay ci mbokki taalibe yi ñoo xam ne ñu ngi ko amee fii mhm. Dakar ak Medina Baye tamit inshallah voilà donc livre la bo xamante c'est aux éditions euh, Harmattan disponible actuellement édition Adna Dia. Ah. mais daf koy distribuer. ah Harmattan daf koy distribuer. Mm. d'accord d'accord d'accord mm. mu euh ñu euh, euh, bàyyi leen kon ngeen lu ci. livre yi disponible na euh, actuellement yaa Oustaz. barkallah am nañu mbégte laaj Pape. Euh, Sébikar. moom daal yaakaar naa réew meeg bitim réew tey jii ñëpp ñëpp bég nañu. te xam naa bu ñu demaatee tuuti rek sunu jigéen ñi mënul ñàkk ay ñoom itam euh, seen question yu nu laaj. waaye lan mooy dëggi-dëggi faydu tijaan yi. faydu tijaan jërëjëf jërëjëf oustaz euh, faydu étymologiquement maanaam cosaani baat bi ñu ne faydu rek mooy bëbb. bëbb mooy luy sottiku. boo jëloon léegi kaas di sotti ndox. mu fees ba xajatu fa. waaw mooy bëgg loolu mooy fulo la surabondance <laughs> li muy teg tegtale rek. Mhm. macha allah da nga fekk wax bi nag ci waxi ñooñ yàlla. Mhm. sufiyanke yi da boo demee ci Jurjaan yi da nga dégg muy wax fayd comme tëb mooy liy jugee ci pays yàlla bi ci inspiration. Mhm. ji yàlla di wàcc ci xolu jaam bi. boo demee ci Ibn Arabi al-Xaatimi le grand maître da nga ko dégg mu naan al fayd al aqdas jublu ci première manifestation bi borom bi def nga xamne ci la lépp feñe ci la lépp ne gàññ bo demé ci jawahirul maani sidi ali harazim bi Cheikh ahmed Tidiane da ngay gis bu tambalé phrase ba ñëk rek ma ngay tuddu fayda tuddu ci jublu ci bëbb inspiration teub ak leer gi jugé ci pays yàlla gi di wàcc ci jàmm macha faydatu nak Cheikh ahmed Tidiane radiallahu anhu moko ko junjoon taati faydatun ala ashaabi حتى يدخل الناس في طريقتنا افواجا افواجا تاتي هذه الفائده والناس في غايه ما يكونون عليه من الضيق والشده شرط يعني يلون تو دافكو غارانتي نكو امنا سي توب امنا فوك يو خامني غارانتي لنا ني ام فتو الاكبر ياغي تي يالا با صاح مين كوي واخ نكو انت ضمان المصطفى يو ياي غارانتي انت يالا محمد يو لا غارانتي لون فوك يو واي من نك مايما فايدو بو خامني ني مرنان مرنان لاي دون نعم. ا آه، غيس تي ميمي امبا مونان آه، مطلبي أن أكون ساقي خمر خمره دنه ومن النعيم مطلبي أن أكون قبا فريدا للبرايا غير هذا أشم مطلبي أن أكون ساقي خمر خمره دنه ومن نعيم مطلبي أن أكون ساقي خمر خمره دنه ومن نعيم مطلبي أن أكون قلبا فريدا للبرايا لا غير هذا أشيم رضي الله عنه لم تجي شيخ تيان تي حاجة ميمي يام برفت بحاجة في القلب بچه موج گنا موي دف توسل دي جوتال كو سي شيخ دي جوتال كو سي سيرينم ني داما لا دفرال بويم بو رفت بو خامني داما كو دافا ملي جونغام جون ديكوري دافاي لاج تيان نك تيان غي موي ميبيتام يوي سوخلام يوي نونو هكا بكران آه. وانقض لها مهر شيقي للبنات الأبكار مهر جسيم سيما بكري وصفها حين يجلى وصفك المنتقى الجميل الكريم ليس فيها عيب سوى فقد كفنا ولها الكوف أنت يا ذا زعيم وصلاة على إمام البرايا ثم آل وصحب كل النجوم رضي الله عنه seetal loolu rek suma nijaay ji daan wax almaktum seetal loolu rafet na rafet rafet na trop mu ne xasida bi poème bi tagg gi ma tagg la jongoma ju rafet la jongoma ju rafet nag dafay am can gu foor waaw bu ma doon bu ma doon melal jongoma ji daal dama naa benn sikk la am mooy amut morom macha allah noonu la tuddee poème bi ndax ndax li tax amul morom mooy sa melokaan la yow hmm. la bëgg na yenentu lu ko ëpp bëgg na moo tax mu doonu leen doonu gu mat sëkk mu li ma bëgg mooy daam saanu sàngara yi nga xam ne mooy xam yàlla xam nga la métaphore du vin hmm. yàlla dañ koy utiliser <laughs> doo xam li ñuy wax li bëgg a wax mooy nga jeex màndi ci yàlla ba gisatoo dara lu may yàlla mu ne ki amee euh, tono yi di nandal nit ñi yàlla laa bëgg mu nekk ma man ku fi naanati maa la maa la nandal loolu nag benn kàngam ca Nigéria ci ñen naane ci moom maalaam Tijaani Osmaan wax na ko ko dafa lépp benn lépp xif bi diyaari wasil ani subaaqi maa bayna mustasqihimu wa saaqi demal ca déngarëb yoonu suufiyanke dafa mel ni gent na kaas baa nga fa di taxawaalu ka doon naan ak ka koy wettale muy naan dem nañ seen yoon biddiw ba leen daan nital suux na fama bin min muftani illaa bi hadin min abi ishaqa benn njub ba fi des mooy njub gu jiwee ci alaaji Ibrahima Niass mi nga xam ne moy debi je bi nga xamne xamé na yoon bi te moy xamat jami ci ñuy jëm fa Cheikh Tidiane faydu bobu la doon junju nga xamne dootu tënku rek ci lim garantie ne li bay wax ne fa fa'lam bi anna tariqa cheikh yi daaminatun darkal wusuli walaw fi akhir ramaqi qamal la tariqa cheikh Tidiane la bay waxon cheikhani garantie na ag ci yàlla talibé bu ci jàpp donte ci nokki gu mu la nek ci kaw suuf waye nak ci daay comme moy dairatul fadliya moy le cercle du privilège yàlla may nañu faydu bo xamne jarul xaar bay sukaraat di doga ag ci yàlla aljanna ju teew la ci kaw suuf loolu mooy faydu bi faydu nag damay wax ne Cheikh Tidiane bu ñu xoolee définition bi nga xam ne mi ngi ci al ifaada al ahmadiya muy téere bi wër nga xam ne ab chérif fatimi di sëti yéen sal Muhammad sallallahu alayhi wasallam di taalibe Cheikh di Tidiane di chérif boo xam ne cheikh ni ñu daan xàmmee chérif yi mooy bu ñu dugg saan ci moom dafay jug taxaw fóon leen sëti yonent bi noonu la koy màggate ci bind téere boobu muy si Tayyib Soufiane yi bokk ci ñi cercle de privilégiés yi jege woon cheikh daf doon dajalee waxi cheikh yi par ordre alphabétique boo demee ci xarf ta numéro 58 wax jooju nga fay fekk muy junj ñëw ak fayda. macha allah fayda nag mooy lan mooy nit ñi dañuy dugg ci tariqa bi par nom par vague successive ba pare dafay yombal li tax tariqa bi jug ndax bàyyi mu ne Abdoulaye wala du xaaj ne ko tariqa dara taxu koo jug lu may xeñtu xet ak alxaqiqa almuhammad yi loolu nag bi bàyyi ñëwee lañ ci teg suñ bët kuy weddi sax ne ñaari critères yi mooy mbooloo mu bëri mi ak àgg ci yàlla. nañ seet rek ndax ñaar yooyu am na ci bàyyi wala déet mbooloo mi dugg ci loxoom 1959 la bind lettre mu jëm Mauritanie. mu ne alhamdulilah ay millions yi doomu aadama tàggoo nañu ak bokkaale dugg ci diine lislaam ci sama loxo mbooloo mu yaatoo yaatu dugg nañ ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane bi sama loxo waaye nag taxut ma naagu ndax dafa mel ni damaa dégg Cheikh mu ne ma lii yëpp sama may la waaye bul naagu kat taalibi Tidiane du naagu du naagu du naagu. ذلك الفيض من بين بزائر الشر ونور من أربي سالكين بلا أكد ولا تعبي وذلك الفيد من ربي ومنشأه حقيقة المصطفى جال أمالا بي وهو الذي سعد الكونان قاطبة وذاك سعدي وقبلي كان سعد أبي يممت قاطعا عن غيره نظرا وقد كفاني عن درعي وعن يا ربي ما شاء الله fii ba na ko bàyyi melalee ba euh, journaliste bi ko doon interviewé ne ko sama ansaar yi ñi ànd ak man ñu dimbale yàlla mm-hmm. ña nga ba lak caat ña nga ba fu ne ci àdduna bi mm-hmm. te ñu ànd ak man dimbale diine moo leen tax a jóg bi ko président Niger Amani Diori mm-hmm. nga xam ne ñenn ci waa Niger yi nekkoon ak moom bokk ñoo moom parti rek tax mu mere bàyyi ci loolu ba bind bàyyi lettre naan ko yéen sax yéen a ngi wax tariqa mais man Arabie Saoudite la l'islam jógee te na ah. ko defal ndànk de Arabie ba ñu génn ca palais ba rek am ku dogaale bàyyi ne ko jox ma tariqa tijaan kon tariqa boobu yóbbu na ko fu nekk jox na ko buur jox na ko baadolo li yéeme ci mbiri bàyyi nag benn professeur américain bu ñuy wax Christopher Christopher Gray moo bind the rise of dañu seen tijaaniya dafa wax ne mu ne bàyyi he has democratized the access to the divine l' accès au divin mu ne yegg ci yàlla bàyyi ci indi démocratie ndax àgg ci yàlla moom maf ñi amoon fatwa ci yàlla mooy ku jàng ba ne xar naan téere yi wéet ak boromam ba am leer ak xol di jëlee di baluloo xam-xam ci pays yàlla bi sell lool ba àgg ci moom jafe bàyyi nag mu ne ñu lam ko waxee ci jawaayir rasaayil mën na laa fa yeggaloo ci yàlla te yaa ci sa machine di yaa ngi ca télé ba di liggéey yaa nga ca tool ba di bay ku nekk ci yoonam te nga jeex tàkk ci yàlla ndax nee na yegg ci yàlla te ba léegi mètre ak genn wàll bi nga doon mesuré ngay mesuré du bët bi yee koy gis waaye bët bu yàlla may rek moo borom moo ko moo ko mën a gis. yare te Cheikh Tidiane daf ne bu ngeen déggee dara ci man pesé leen ko ci alquran ak sunna bu bu con bu conformé maa ko wax bu conformé nu waxuma ko ndax danañ ma sonal sosal ni ñuy sosalee ñëpp ndax sosal nañu yentu yàlla Muhammad bàyyi ne bi zahiri shari wa nuuril mubini wa rabbi salikina bila shakkin wala riya bi ci sharia bu leer ak leer gu biir gii ci laay yar sama taalibe ba mu ci yàlla tàggoog sikk mhm. ndax gis nga jàmm bi fekk tàggoowut ak sikk rek jàmm yàlla am dafay manqué mhm. باي موني مهما وقع الحجاب وقع العذاب فيك فوال ميغي ام رك مبوغال غي ام يوم القيامه ني سفر ني غنا تات مبوغال موي نيغا خامني يوم القيامه مبوغال ما فا غنا متي موي نياك مانا غيس بروم بي مو غنا متي صاح سفر ليغا خامي لا اوب دول الجنه موي يالا ييكتي غيم ييكتي كرايام ني ما دولي لين ني جانوك موم مبوغال موي ني تي بير بامل ak ñi koy xalaat naan jàpp leen seen kurus tey wir doo bu leen di ŋaayoo luñ waxin na leen neex ngir Sidi Barahama ku jàpp wir do ci baay jox la ci ngëneelam doo perte doo wala kaana bokkoo ci ñuy réeroo nañ jàpp wir do ci baay yàlla taf ñi ci moom yàlla bul ñu fase gila góor Sidi Barahama mbugal mu rëy mi ci biir bàmmeel ñi koy xalaat naan xanaa dañoo yorul ngërëmal Seydi Barahama ku faatu tey taalibeem balaa ñu laa suturaal Seydi Baram teewe loola jox la passeport Sénégal bu ñu noppal nañu commandant xoolu fu ñuy xëccoo nguur xoolu trésoro baay sopput ku sopp hadduna xoolut baraayaa kitaab sib na tere ya xóolub lu ñi jiro ños ños ños ma ne faydu bi mom talalu na wa faydatu baye wax na ca ca gana wa faydatu tijaan yi qad tafaddaqat bi yende wal anwaaru qad tafattaqat wa tiilika al ajaamu qad tafawwaqat ha wa xadaraatul qurbi qad tahaqqaqat baye mu ne ñi day lak kat yi day kawe nañ fayda tijaan yi ball na ca digg yende ca nor gana ah ñii am nañu kawe mu ne nak mu lim xeet yëpp ne fa til qabaailu saqaawumul xat mubtijaanil alqaailu almadfau alkabir yarmi min baid ani maqaamahu almukattamul farid Cheikh Tidiane dama waxoon ne canon bu mag bi bu soqee fu sori lay dal te faydu bii la ci juñoon maa nga jóge bàyyi nga jógee ci Kossy nekk ci diggante Tamale ak Yende faydu bi ball àdduna yëpp uysi ko muy wax naan jitu wa maa amkana ni nuzuru min min min xasiyati min kasrati nnaasi wala lxululu fa surtout xawfan fa surtout fawran xiifatan li yende كان كل الخلق صاروا عندي سما افيو باغي واتي منتا واتي تامالي ناخ بني واتي جي كاو نيني لا ني واتي ني كونتيني ديم ياندي بور واتي فا مو ملني لي يالا بيني تي ميندي فيب دانيو واتي فوف بور نيو تيلو سيما هناك اراني حياء وخجل ما العبد ابراهيم ما له يجل فوف ناك مروس ام كيرسا كان موي جامبو خيبو بي با نيكوي ماغال نيجيريا 51 لوم وخون اين برهامو وما برهامو حتى فنوا في حبي وهامو kuy bàyyi kuy barxaam luy barxaam sax ba ñu koy màggal di ko fonk-fonk yi bu taxatoon nag jeex gi ma jeex ci Cheikh Ahmada Tidiane yi kon ker sa rey ma jeex gi Cheikh Ahmada Tidiane moom nag moo ko dénk moo tam aw jëri nii xaqan li jibril kasri fa inna nii wakiilu siru siri yàlla dafa maa amal ngir ma soigner la fracture fracture bi mooy lan mooy pont bi ñu jëmale woon ak suñu borom te dafa màbboon yoonu sufiyaanke jëm ci nax saay bàyyi ne xas di ihya sunnatil ahimi amini uxyi tariqa alqawmi lil quruni sama objectif mooy dundal sunnaas yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dekkal yoonu sufiyanke gi jëmoon ci naax saay ngir ku bëgg a ci yàlla àgg ci yàlla livre ba mu bind ci wàllu tasawuf gannaaw ruxul adab muy kaashiful albas lii ma yore rapport ba ci tubaab yi def la bi mu ñëwee rue Vincent ci Dakar tubaab yi am bureau buñ tuddal buñ tuddee contrôle arabe contrôle presse arabe lépp lu jëm ci sëriñ si ci livre yi ñuy commandé ak lu ñuy jàng ak lu ñuy bind lu ñuy taalif ñi koy jël liir ko am ay arabisants yoo xam kenn dàqu arabe آه، كنا قمنا بول مارتي نيم دغيون عرب آه، كنا غيسنا آه، لوسيان نكاش ميغا خمنا قصيده بين في جانغلي اوريتو بخير الخلق موكو ترادير ديليكو سي عرب انديكو سي فرانسي جوكو غوفرنور جنرال نلان باي مي ميغي وخني بام نكي لير لا خم يالا تا نون سي جيسو رك لا خم كو نك سي لير دي وخ كي ورنا نيو جوك سي ميرم رابور بي بن ليري كاشف الالباس تاميت غيس تزيل با موي وخ تير با باي دي وخ تير بي جيجن ام لا جيجن مانا نك واليو مانا نك كو يالا تان سي طريقه mën naa nekk muqaddami tidiane dañoo mujj ne lii lii hétérodoxie lii bokkut ak li est-ce que la doctrine officielle ci l'islam livre bii sax ni ko interdire gis nga ki ko signé gouverneur de muy Boisson mu ko tous les yi nga ñoo ci Afrique occidentale leen Cheikh Ibrahim bii nañ ko interdire kon émancipation yaakaar naa dañ cee des gannaaw bi bàyyi naan jigéen mën naa كاشف الالباس عن فائده الخدمه ابي العباس فيما جمت تيري بصح موي لا تي باي دي واخ موي بونت التربيه امنا نيو ديال واخي زروخ انتربريتي كو فوسما ني بونت التربيه تجنا موي انترينمون سبيريتوال مي تجوت يرمان يالا نومي جيخه فك نين تي كاو سوف تربيه نويت الرحمن بلاكو ابو جوف تودي نويت الرحمن بي موي فايدو بي دين الاسلام بودو العارف توس سيدي باما ماني واخ جو ملي ما maa de yónneen maa de Seexu Tijaan gagloo waa ahlu kitaab nooni baaraama génte naa bi géntu gu ma jaaxal bu du woon ak kon daa ko waa kër si di baaraama génte naa bi pey bu ñu wax mulku da tàppoog malakoon ahlulaahi lu ngeen ci xam suy dibaara ma donnu xam-xam siiw bari mbooloo da yokku kiiraay di jay borom ma xiir ko ci wër weddi baara ma mane weddi mane bari mane njabar am li jaaba xam ilmu nujum aka soreek fatxu maayeem suy dibaara ma mane njabar am li jaaba xam ilmu nujum aka soreek fat xumaayeem sidi baama mane mana njabar xam li jaaba am ilmu nujum aka soreek fat xumaayeem gaañi baaraama loolu mooy fatxu fatxu mooy illumination wala ouverture sa diggante ak sa borom voile bi ci nekkoon jugee fi ca bàyyi mu ne yàlla demut fenn mu faydu ñaar la bi nga ak bi la ne la lay xew sa biir néeg boo nekkee ci studio bi xam nga xamoo ko kon dafa am ne ko dafa am loo xam ne moom fi nekkut fekkee woo am loo xam ne yow yaa fi nekkut loolu moo dox suñu diggante suñu borom ñun ñoo fi nekkut ñun illusion euh, tar bi fatxu nag daf lay yóbbu ci nga ràññee illusion boobu nga yegg ci la réalité ndax yàlla dëgg dëgg mooy la réel ñun euh, ku réel du fi buñ réalité duñ fi nekk léeg-léeg ñu ñàkk fee kon dañ fiy sax rek tarbiya booy ñi miin livre yi taalif yi sufiyanke yi nit yàlla yi jiitu woon da nga xam da nga xam ne dëgg-dëgg ci lii lañ doon wax ñooñu waruñoo mën a réeroog li li li baay li baay di wax waaye nag fekk jaaroo ci li ñuy wax entraînement spirituel xol yi dafa am komb waaw waaw futihat mafatixul kii la ko tuddee futihat mafatixul axlaaq yi la ko waa ji tuddee maanaam Tidiane Ousmane mu ne bàyyi xomb xol yi yaa ko dajji ba amoon xomb gu ci nekk yow yaa ko yow yaa ko dajji ba ñu ba ñu ne yaa yaa ngi yéen a ngi nii seen seen borom a ngi nii cheikhu kaamiloor cheikhu zamani ba ñëw naa moo de bara amma am ngeen sëriñ waaye xamu leen ko am na lum leen hiir bahoorul anwaari moo doon gaañi bara amma wàcce leer ya poose ko soodaan ñun leen tijjil kënzil azama barakallah sini bara amaar yi gol ba daan ya poose ko soodaan ñun leen tijjil kënzil azama sini bara amaar subhaana basaratal arda sant leen baabu laa i ñëw na soodaan si di bara ammaa ku yal ko ba jàkk du ko faat moo de jàmburus mbóot ci suufe lay taa gaañi bara ammaa sàkku leen a buur bi leen pooseel machine ngeen da dox saakoom nen du taxaw gëm leen si di bara ammaa sàkku leen a buur bi dendu suuf si wiise asamaan si dun bi dan dandoor la len len Sidi Bara Amma hadu nabi ak yu doyadi ci biram ku ci top sa nafsu bala di ritu gem len Sidi Bara Amma àdduna baagat caax la duy faj mar ngay rot ba de muy tuuru ngay ritu gem len Sidi Bara Amma laxasaayu leen bu leen fatte yalla gañi wacci gawna ay na rooloom ñëw na soodaan si bara amma mane la xasaayu leen bu leen fàtte gaañi wàcc gaaw ay na rooloom na soodaan si di bara amma yoonu faydu ku ci xas soobu melal soldaar niw bu yëngoo wa dee ut bara amma niw bu dee di ko tàgge muy jóg dëtti suuli dóoral mu dem tool ya deehut nooni bara amma ala nagge maya gayna ko ndaw ku yurmini kanga do sellata maya manki bara hamma hegji garab ba yàgg sa ya bàppee ku jëm na xut bu hiir ñu looloo gaañi bara amma suma faatoo nañ morob tëgg foofay banjangara fa Cheikh Omar fu tenka baax Sidi bara amma gaaga dem ba hadaratul qudsi wallahi dootuñ fatte yàlla fu ñu gestoo janok yónneen Sidi bara amma caabi hadaratul qudsi moo de Seydi Baraam jaam ñi nora texee ñoo gëm Sidi Baraam. jërëjëf baarakallah baarakallah baarakallah baarakallah. rafet na loolu mooy faydu te ñu ngi ko doon sentu nag. macha allah ñu ngi ko doon séntu ndax Cheikh dafa ne woon day ñëw fekk nit ñi nekk ci xat-xat mi ngi feeñ 1929 ku ne xam na le krach boursier la crise de 1929 mi ngi feeñ ci jamono joo xam ne mag ñi dëddu nañu ñu bëri ci mag ñi dëddu nañu àdduna nit ñaa ngi mar yàlla sëriñ bi feeñ oote ko ci yàlla dëggal ko waa Mauritanie ñu ko doon séntu Cheikhaani na na ko dëggal nañ faydu bi ci yow te kenn du ko weddi lu may ku texeyaat yi Nigéria la nord Nigéria nga xam ne l'islam dafa yàgg tariqa yàgg fa ñooñu ñu ngi ko doon séntu Euh, tubaab bi sax ñu ngi ko doon séntu ndax capitaine André dafa def rapport ne dafa am ay remous ci diggante Nigéria ak Mali ñu ne ñu ngi séntu ku mel ni ku ñëw di beesal diine ji. Mm-hmm. mu dem ba Nigéria yebal nañ sax benn kilifa jëlee ko Sénégal mu dem ba Nigéria ba am ci kuñ jël gëtoon ko lool ci jamono jooju ci année trente yi fu ñu yóbbu ko fa ñooñu faydoo leen doon xeeñ rek jël nañ sax ku ñuy wax Chérif Laxdar jëlee ko ba Algérie jox ko mission pour mu ñëw ne nañ mu génnee euh, Sénégal ak Mali ci tijaaniya bi aju ci zaawiya Fès bi yóbbu nañ ci tijaan bi aju ci zaawiya Algérie bi ndax ñom japp nañ ne zaawiya Fès bi mm-hmm. ay réactionnaire lañ loolu lañ leen jàppee loolu yëpp dama jàpp ne faydu lañ doon sentu mm-hmm. mais yàlla fu muy denc nit mënu faa yegg bàyyi tubaab yaa ngi ko wër am préparé naa tout un dossier boo xam ne rapport yi ñu rap bi ñu bind ci moom ñu ne c'est le marabout le plus suivi de l'Afrique le plus suivi man dem naa Nantes dem Aix-en-Provence dem archives diplomatique de la Courneuve dossier yi fa bàyyi am ëpp na ëpp na un millier de pages jël na avion tey dem na Accra jël na avion ma nga ànd ak sëñ Cheikh Mbacke ma nga jëm fële yónnee nañ ko telex ma nga ànd ak sëñ Abdou Sida Baax ma nga jëm ci Hassan II ma nga nangam recevoir na nangam délégation Maroc Ligue arabe waa palestinien waa am na palestinien yu mu jox kër yu dëkk Medina Baye am na nangam fu ne ba ci doomam yi ñu leen di rapport doomam yi ñu leen di rapport oustaz Ibrahima Mahmoud Diop Khalifa Alhaji Abdoulaye rapport bu ne def nañ ko ci moom plus de 1000 pages loolu moo nekk ci livre yi ma bind waaye liñ mujj a wax pour wane yàllaa ko sàmm nee na yenentu moo ko wax ne ko yow loxo kuy lor du yegg ci yow su kéeri ji ne ko da nga am ndono ci wallaahu yaxsimuka min annaas yàlla mu ne yenentu bi maa la musal ci nit ñi ba ba àddina di tukkee kuy lor du ak si ci yow moo wax sama maam ki jur sama baay alaaji ma ñang ne ko boo déggoon ne wàllu yi dañoo def ligg ànd ak kàccoor yi ñu jëm si ci man pour rey ma tëddal nalaw duñu yegg ci man loolu ba mu koy wax 29 ans la am moo tax tubaab yi topp nañ ko ba sonn xam nga lu ñu mujj wax Claude Étienne de Bois Lambert mon premier ambassadeur France Vite ci Dakar bi bàyyi ebalee délégation alxaaji Abdullahi, Oussad Ibrahim Mahmoud Diop et euh, Sherif Babali Haydara ñu def tourné tournée bu rëy boobu nga xam ne Gamal Abdel Nasser le premier ministre du Nigeria, le roi Hassan II le prince héritier le ministre de la défense et des affaires étrangères marqué le monde arabe le monde musulman dafa def rapport euh, ambassadeur France ca ca il a Maroc dafa bind lettre Maurice Couve de Murville mooy ministre des affaires étrangères bu France mu bind Claude Étienne de Bois Lambert muy ambassadeur France ci Dakar Nako nako, na mbiri Cheikh Ibrahim Niass mii mu ne ko kii moom yàgg ko gëstu ki li ñu am ci mom kenn xamul nu mu waaye c'est la personnalité religieuse la plus marquante du Sénégal ou dirais de l'Afrique mom lool la wax mu ne mooy nit yi gi nga xam ne dafa bolé mu ne bàyyi dafa bolé ñaar yu jafee bolé moy tradition ak modernité dafa ancré wu di oustaz Baram Diop wax dafa am Asala. dafa am cosaan ba paré. cosaanu ba pare am ubbeeku ci àdduna ndax lépp lu am njëriñ ci àdduna jullit a ko moom yeneen ci boppam ne na sagesse dafa réer jullit fu mu ko fekk moo ko moom ouverture boobu ak tëggoog yàlla musal ko li ko sukkeeri ji wax ne ko da am mashrab da ngaa naanee ci wallaahu yaxsimuka mina naas gi yàlla waxoon yenent bi moo tax kuy lor du yegsi ci yow ma ne ponkali lislaam mm-hmm. na nga ci Cheikh Ahmad Tidiane bu doon jaaro la yaay jem ba yaay euh, yaay euh, jamaa ba nga xam ne moo koy décoré bari na picc muy naawandoor ak yow def la morom te fekk suqi nañ ay laaxafam bu yàgg te moom yeggu ko loolu mooy la loolu kooku mooy Cheikh Ibrahima leer na hmm. leer na Cheikh Boucar hmm. yal na yàlla yokk xam-xam bi yal na yàlla yokk la dëgëral yaakaar naa euh, sunu xel gën naa dalati gën nañoo bégati li ñu la doon doyee jox nga ñu lu ëpp lu kawe suñu njortu mhm. alaaj Pape yaakaar naa téléspectateurs yëpp bëgg nañu mhm. xa dëgg bëgg a jot Cheikh Boucar kenn amul sa fay mhm. ñu ngi ñaanal xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi ak njaboot gépp yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi tawéer alaaj Pape Cheikh amin jërëjëf yaa oustaz euh, bëggoon nañoo àggali waaye dañ leen di bàyyi ngeen mën a waaj euh, pour xëdd bu ko defee ñu sant bu baax euh, Cheikh Ahmed Boucar Niang mu ngi ànd nag ak Cheikh Moustapha Sarr ak ñi mu àndal ñu gërëm leen sant leen sëñ Cheikh Ahmed lan mooy nekk kàddu yu tëj yan kàddu ngay tëjee jotaay bi. waaw kàddu gu mujj rek mooy gërëm leen bu baax a baax. ndax GFM moom ku ne xam ne ne nit ñaa ngi may message fii ba Oslo ak Hanover ak New York ak fu nekk mooy wane ne vraiment. télé la boo xam ne àdduna yëpp a koy seetaan. te média dafa nekk lu am njëriñ Cheikh Ibrahim. yaakaar naa ci njëkk indi. rajo bi Sénégal la. Euh, créé journal lu nekk mu dugg ci ndax xam na ne ku am lu baax da ko war a jébaane bu ñëpp jot. Mm-hmm. te yéen a ngi wan àddina mm-hmm. li baax li réew mi mën a wane. Mm-hmm. ndax Sénégal vitrine bi bi ko gën a mën a jaay. bokk na ci suñu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo tax lislaam nax saayut waaye koo ci jël ci ñoom rek boo ñëwee ci aspect littéraire da nga gis ne. ci ñi dàq bind ci àddina la boo ñëwee ci jege yàlla boo ñëwee ci bëgg yàlla boo ñëwee ci mbaax ak ci tasaare Sénégal amul lu muy jëgaani fenn kon ñu ngi leen di gërëm bu baax yéen ñi nga xam ne nañ ko fësal di gërëm suñu ustaas yu baax yi di gërëm seen Moustapha Sarr ak suma sang bi Cheikh Mouhamad Mounhamid naa tooyal nañu xel yi bu baax a baax a baax di wax rek bi may wax ci jigéen ñi relève mi ngi am ba léegi mbiri bàyyi du taxaw waaw mbiram dafa leer la ma waxoon ne fan amul waa di waxoon fa laa iskaala sama mbir dafa leer amul lënt waaye amul tànki gannaaw ne na woon wa maratan uxra taraw na ajaban beneen yoon ci ngeen may gën a xam mag ñi laa tudd naa mag ñi seen rakk fi ba léegi ci jigéen ñi Seyda Umul Xayri ma moom la bàyyi tegoon ci Niger ñu koy wax Mama Kiyota. am na benn américaine universitaire bu tudd Pearls Robinson. dafa def ci moom dundam yëpp daanaka ci maire bi la ko soxna si la ko gëstu. macha allah dafay wax ne fondation bañ créé ñoom ci islam mooy première fondation ci Niger. daaw sax université Californie Toft Toft University. def nañ prix boo xam ne moom lañ ko jox. muy soxna Oumou Khayri ci lu mu liggéey ci diine ak lu mu ci taxawal. rakkam Seyda Nafisa di borom xam-xam di borom alquran rakkam Seyda Ndeye Aïcha muy maam Astu Jànq bi bàyyi tuddee yaayam ku ne xam na ko li mu taxawal diine ak li ci tàllal xanaa gërëm rek ñi ànd ak ñun ñëw mhm. euh, Mamadou Makhtar Fall Cheikh Ibrahima Diouf Thierno Gadiaga Sida Adam Diouf Ousmane mhm. Seck Malick Cissé Mbaye Diouf Ibrahima sa euh, Moustapha Sall Ibrahima Diop ak ñaar ñi nga xam ne moom seen naataango lañ Babacar Diop tudd nga ko mhm. caméraman ak Baye Niass photographe ak سان خارج عمر والي وساندقة طالب الشيخ مم يوم تكر جل نجوم مني تخاوتي سانتبي ما شاء الله أك جدنا هلا شيخ فتحي مو شيخ معي سيسي ديجرم تبي تفضل ما بيتي شاك أنا نمكوي دفع دفع أبي يني يونيب من اسمه بس لما يخار إن شاء الله تي جتاع الشيخ عبد الملك بقول سانتيكو ما شاء الله نيجي نيجرم بوبا نيجي الله يلا بو رجعي بينك سندني الله أمين الله أمين يلا يعقل في خليفة بي يعقل في إمام ما ذلك الله العزيز salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, ñu ngi lay gërëm bu baax Cheikh Ahmed Boucar Niang euh, gërëm tamit euh, Cheikh Moustapha Sarr ak ñi ngeen àndaloon tey ci guddi gi ci télévision Futur Média ñu ngi ndokkeel Abdoulaye Mountakha ñas di ko ziar bu baax MC Niass itam ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel itam jabootu baay yëpp ak fu ñu mënti nekk ci àddina merci yàlla nañu fi daje at bu jot diko waxtane ci télévision Futur Média Oustaz papane Hann jërëjëf alaaj Pape am mbégte lol am mbégte lol, tay yakarna xol yëpp sedna na waaye safahu Safaahu ma nga Paris ma nga France nu ngi koy nuyu baax moom itam ñaanal na yàlla yokk ko dëgëral njaboot Cheikh al Islam euh serigne Mustapha Ñas bu Baye Mbay euh Cheikh boukar ñom ñëpp nee nañu begg nañu euh, Cheikh Hadi Abdou salam moom itam nu ngi koy nuyu euh, Cheikh Koulibaly sunu xarit Euh, mu Ndiaye Rahma sunu soppee moom itam mi ngi toog di seetaan ñoom ñëpp yal na yàlla yokk leen dëgëral euh, Cheikh Boucar daal yaakaar naa mbooleem tey jii taalibi Cheikh al yi ak soppe bàyyi ñu nekk biir réew mi bitim réew ñëpp ñëpp ñëpp bég nañu yal yàlla yokk la yàlla gën a barkeel xam-xam di la gërëm bu baax a baax a baax nag di la gërëm bu baax a baax a baax di nuyu DG euh, bi tey DG Sénélec mm. moom itam nu ngi koy nuyu bu baax a baax di taalibi Cheikh islaam moom itam Euh, di ko ñaanal yal na yàlla yokk ko dëgëral. walaaj Pape tey daal yaakaar naa. Mhm. ñëpp bég nañ ñëpp a kontaan euh, at mu jot rek bu ñu waxtaanee bàyyi nga ni mhm. bii moo dàq bi fi weesu. bu ñu ñëwaatee it muy gën a mhm. kii rek ndax bàyyi ay mbiram moom géej la. géej la géej la du jeex Cheikh Boucar tey. Euh, li mu programmé lépp lépp. wax waxuma sax genn wàll gi. mais xaajaar xaajaar bi sax waxu ko ndax day borom xam-xam. ma boo déggee ni muy waxee. nga xam ni macha allah. Euh, ku documenté wu la waaye itam ku sonn ci gëstu la mhm. waaw yal na yàlla yokk la dëgëral xam-xam nag moom mag ñi daan nañu wax ni boo ko bëggee mhm. dafa am lu bare bari bari looy moytu mhm. dañ ne al ilmu masbuhun bayna faqi zayil marati loolu la loolu la arab wax ne na xale buy jàng nanga nanga na nga am loo moytu ndax xam-xam dañ ko rendi ci ñaari lupp jigéen dañ fa la ñu rendi xam-xam nee na xale buy jàng bëgg xam-xam nee na nee sa xel bu bu mu nekk ci yooyu mhm. da jàng ba pare leneen looy def door koo def kon ñoom boo xoolee xam ne seen xam-xam dafa baax mhm. ba noppi seen xam-xam xam-xamam dafa sell mhm. allahuma la adur yàlla bu lor jógee ci sunu gémmi ñëw ci yow waaye bég nañu sopp nañu la sunu xol sedd na ci yow baax a baax euh, Cheikh Ahmed Boucar Omar ñang yal na yàlla yokk la dëgëral alaaj Pape bég nañu lool macha allah jërëjëf yow saas kon ñu sant ñëpp gërëm ñëpp euh, Serigne Aliou Cissé Deme euh, ambassadeur ca dëkk bu ñu naan Oman moom nee na bég na ci euh, jotaay bi euh, Prési Cissé itam daanu na euh, musaa Diagne bu Baba Lamine ñas ak MC Niass moom it bég na. ci Baye Ciss mi ngi lay mi ngi lay mi ngi seetaan waaw moom taalibe Baye la. di mhm. bokk ca njaboot ga di jàmbaar lool moom tamit. Mhm. moom jàmbaar la ci faydu bi. mi ngi doon jàmbaar waaw jàmbaar la ci. ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar bu baax Baye Jibril bëgg yàlla. bay Jibril bëgg yàlla talibé bay Niass moom itam bëgg na lool ci quartier général bi kon xam naa oustaz ba ca kanam rek incha allah. incha allah alaaji Baye Cheikh amoon mbégte àndati ak yow ak ñu bokkaloon plateau bi yëpp fa tabarakallahu si quartier général bi gërëm bu baax ñi doon tagg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yëkkatee adkaar yu maulana cheikh ibrahim saahibul fadl tijaniya radiallahu anhu gërëm bu baax cheikh boucar fa tabarakallahu omar ñang ci waxtaan bi ak pédagogie bi waaye tam ak leral yu am solo yi nga xamanteni lépp lu leuntoon wala lu lëndëmoon ci ñen ñi ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu leral nako ko yàlla yok ko xam-xam bi te barkel ko di su ndekkel rek suñu yaay bop maître Nafissatou job ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér pap Demba bi tey wax ngeen ko mom suñu soppele suñu lépp la wax fa deug yàlla ak ko xamne kenn la si ñun Cheikh Abdourahmane Daw Al Karim ak njabootam bi net ñoom yande ñoom ñëpp Cheikh Abdourahmane ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér yàlla dolli ko sutura si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Farma Boy mu ngi fii Yoff APEX si Farma Boy taalibe Maulana Cheikh Ibrahim la radiallahu anhu colonel Mouhamad Gadiaga euh, ministre Abdoulaye Seydou Sow ak soxnaam Mari Ndaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak Ahmed bu Papa Dame ak soxnaam Ndey Awa ak njaboot ga yëpp macha allah euh, di ko may nag sama jarbaatu bopp Zeyna Sakho Euh, Zeyna way juróom bu góor dafa génn àdduna di Cheikhou Sakho di woon ku baax ku yiw Zeyna ñu ngi koy nuyu ak yaayam Adja Ndeye Seck Sakho ak Mouhamed fële ca Kër Massar Ablaye Mountakha wax ngeen ko yal na yàlla dolli jàmm mag ñi daal nañ leen yëkkati ba sa kaw di leen wane ndax sak lañu te lépp lu ñu am si jàmm fa tabarakallahu ñoom ñoo ko liggéey alaaj Baye Cheikh si kanam tuuti ñu ànd ak wareefu Ramadan 10 heures mhm. incha allah ak Seyda Fat Bintou ak Oustaz Mor Thiam ba guddi incha allahu taala la ilaha illallah